23h38 mooy a jot bu dee yéen euh, euh, ñu ngi àndandoo ak yéen ca euh, ba tey quartier général jotaay bi nga xamee ni moo gën a mag ci weeru koor ñu leen koy jagleel en direct ci télévision Futur Média ñu ngi jëm ak yéen xëdd waaye sañu ñoo continuer naam sax seen i laaj yéen a ngi koy yónnee ci téléphone bi 88 628 22 22 en plus de bu ngeen wootee laaj oustaz Pape Anne dañuy may ay billet mag billet bi ñu teg fii nag ma wër ko xam naa da ko bëgg a yóbbul seen waa koñ mais bon du mën nekk parce que pour téléspectateurs yi la alors euh, billet bi gis ngeen ko nii ma doo xoolal duufal say bët tuuti 2 euh, millions 500 voilà 2 millions 600 plutôt plutôt voilà loolu la quartier général di maye euh, pour téléspectateurs yi madame la ministre tey la mayoon billet maa ko di waaw su ma su ma paree waaye nag eh, <laughs> moom question bu nu mënul a xaar la waaw mais fas yéene nañu ko. incha allah comme ça boo ñibbisee def nga ne léegi yooyu yëpp wala doo dox ci xew yooyu parce que jigéen ñi fi Sénégal dañuy xew de boo jógee woon Màkka tey di nga xew xew bu rëy. waaw waaw moom xew mënta ñàkk mais di ko limité rek. mais damay ragal boo xewee of nag ñëw ci yow de. non non non of nag sax. laaj nga euh, nag yu bëri foo ko jël. non non non xam ngeen ne nag aussi. Euh, ku ci ne sañ ngaa nag am xaalis boo xam ne law na la. quand même mais est-ce que di ngay battre parce que ñun euh, bu ñu xewlee d'habitude dañ leen koy tuddee euh, chaque fois nga gis événement boo xamante ni barki démb Ngoné Ndiaye géwél bi mu wootee yow la ko tuddee euh, keneen ak keneen ku fi am xew daf la koy tuddee est-ce que d'habitude di nga joxe enveloppe bi ci ci yi. waaw xam nga tuddee aussi euh, maanaam ci feddali xëy na cofeel lay doon di nga ci def li nga ci mën rek. par ñaata parce que def li nga non kooku moom nag. <laughs> doo toog ci est que est-ce que di joxe ndawtal wala wala wala wala doo joxe. no xam nga da ngay xool lan mooy philosophie bi ne ci ginnaaw. waaw philosophie bi mooy solidarité jàppale nit ki. Mhm. ci li nga xam ne bësam la. Mhm. loolu it mhm. euh, fi lañ ko fek ci suñu culture la dara nekkul mus nga mus nga bokk tontine tuur comme comme ni ah, jigéen ñi bokk ci Ah, natt ñaata loxo nga daan bokk d'habitude ça dépend nag ba may commencé parce que dama commencé ci lu tuuti doon cadre bu ndaw mais sama salaire ba may commencé ñemewu ma ko wax sax cent vingt mille la woon ah waaw euh, ñuy continuer di voilà def suñu carrière fi nga doon liggéey natt ñaata la juróomi junni wala junni la woon non non non euh, xam nga boo amee cent vingt mille sa natt du doon juróomi junni quand euh, uh-huh. ku nekk li nga man li ëpp solo rek mooy def li nga xam ne du la gaañ ëllëg mais kañ nga gëj a bokk natt ah maa ngi ci ay natt ba tey sax. ah bon ah, ah. <laughs> franchement. loolu mooy wane ni comme jigéen yëpp ni ñu mel ah, déjà Eva a mi ngi seetaan envoyé na message na nga xam loo koy laaj boo ko laajee lu ko neexul daf lay tëj pourquoi image boobu noonu ñu bëri am ko à l'époque ne loo wax rek euh, euh, madame la ministre daf lay tëj pourquoi euh, daawoon nga dégg loolu ci nit ñi. waaw xam naa xam nga jigéen maa doon deuxième soxna bu nekkoon ministère de la justice. xëy na mhm. ay góor lañ daan faral di gis. Mhm. Euh, te nag ma wax la nekk sax ñi ñu tëj ñëpp man mosuma leen a xam. Ah. sax euh, Karim Wade mosuma koo gis. ah bon mosu mosuma koo mosuñ nu wente xaw ma. mais pourtant wëllëre baayam nga parce que nee nga au début des années quatre vingt xamoon nga président Abdoulaye Wade. waaw mais xaw ma woon Karim Wade donc euh, du du loo xam ne lii personnel la. Mhm. parce que du affaire affaire coxor wala. wala yu mel noonu déedéet. Mhm. dafa di affaire u yoon affaire u justice. Mhm. Mhm. Euh, ndax lu alalu bu ñëpp bokk. aussi dañ ko war a jaarale fi mu war a jaar bu ko defee ñu mën a am développement. parce que ci jamono yooyu sax dama doon dégg journaliste yi souvent ñu lay tooñee Margaret Thatcher. non non mooy xëy na miinuñu ko woon. Euh, waaye defe na ne bon. lu lu normal la rek. dafa di am liggéey yoo xam ne dañ ciy séntu góor. waaye jamono yi ñu jigéen mën na mën naa nekk euh, voilà mën naa def liggéey bu ne. d'accord d'accord oustaz du ñu la téye lu yàgg yow tam dama bëggoon ñu wax ci social tuuti mais dama lay bàyyi rek nga daw ndax suba ci fajar incha allah di nga àndandoo ak euh, téléspectateurs yi. incha allahu taala mm-hmm. ñi nga xam ne dañu bëgg Sidina Muhammad ñoom xam nga dañu nelaw bu ñu bu ñu nelawul ci guddi gi sax dañuy xaar ba siir siir a jeex ah. ndax ñu waxtaane rasulullah yi mm-hmm. waaye comme ni euh, madame la ministre wax léegi gis nga mm-hmm. alaaj pap attekat bi dëgg mooy yàlla gis nga yàlla ëllëg kenn du ko romb ak benn dërëm. xam nga tey jii sa mbokk buñ ko buñ ko woowee mu jël dërëm ñu woo ko. Mm-hmm. di nga naqarlu pourquoi nu koy woo. Mm-hmm, mm-hmm. mais yàlla nee na ëllëg. danaa régler ak yéen dërëm par dërëm bii fu mu jógee. bii bi biñ la ko joxee loo ci def. summa latus'alunna yawma izin anin na'imi waaw ñu régler dërëm par dërëm yàlla mbaa yëg nga ni nga ku nga dundee benn fan lu lewul. ñeent fukki fan loo ñaan yàlla du nangu. yow dafay dem ba nga yëg nga ñàkk yëg yàlla dañ na ci yow nga yëg nga ñàkk yëg yàlla dañ na ci yow mooy kuy dundeelu lewul am na ñoo xam bu ñu tiimee seen kër dañuy tiit am na ñoo seen njaboot bu nuy lekk seen xel du dal parce que la ñu ko amee lépp dara lew ci gis nga booy lu lew di am lu lew mbedd mu la neex jaar soo tëddee nelaw ku la woo nga wuyu ko yàlla ëllëg kenn du ko rombee benn dërëm mhm. te attekat bi nag mooy gaa yi ay jàmbaar lañu sunu attekat yi mhm. waaye attekat bi dëgg alaaj pap mooy borom bët bu rëy bi bi nga xam ne moom lépp lay lépp lay réglé mhm. kon maa ngi ñaan ñi jubul woon nañu jub yàlla kat baay bu saaxo waxoon ni bu ñu yéendu yéerndu woon ba gis maa mànga sin ba mbaa jal ba du ñu jiiroo te du ñu tafu mu ni ba léegi may wax ak yow yàlla nga ak lu amagul borom te soxlawu ko ra yàlla ne ñaan leen ma ma may leen te gis nga alqanaatu raaxatul nit dafay doylu gis nga doylu boo ko defee rek dal di fiix d'accord

ñëpp baax wallaahi mën leen groupe Futurs Médias ñoo mel noonu ndax ku ci kenn ku ci ne li la yàlla defal defalu ko sa morom mm-hmm, mm-hmm, waaw mm-hmm. kenn ku ci ne li la yàlla defal defalu ko sa morom yooyu yëpp nag bu ñu ko dajaloo toog mooy waral euh, da saf réew mi euh, rawatina boo laabalee sa xol ndax yàlla ne ni fii ci man alal du fi jariñ askan du fi jariñ doom du fi jariñ li fi jariñ mooy xol bu laab yow ma laa yanfau maalun wala bannuuna illa man ata allaha bi qalbin salimin xol bu laab nag boo ko amee sa kanam day belli da ngay leer merci beaucoup oustaz ñu ngi lay gërëm bu baax euh, on va parler maintenant de social ak euh, euh, Madiop Peex comme ni ñu koy defee ci ay bis ci kanamu madame la ministre ndax man dégg naa ni sa kër day fees dell jamono yi ñuy préparé émission bi ñëw nañ fa def enquête mais dañu gis day fees dell yenn saa yi lekk bi sax yow yaa koy séddale côté social boobu nga xamante ni sénégalais yu bëri xamuñu ko yaa ngi ci des années durant lan mooy itam sa secret ci jàppandal geeg ñi ngay dimbali ci ñu bëri ñoo xamante yaa leen di fayal ay bourse ay ñoo xamante ni yaa yore njaboot euh, kër gi itam di fees dell ñoo xamante ni sax sa njaboot loolu euh, lu tax madame la ministre. waaw mooy li ñu wax rek bu la yàlla wërsëgalee. Mhm. Euh, lu mu wërsëgalul sa morom. Mhm. te kooko gënu la. Mhm. mais li la war boo de jullit mooy nga bokk. mooy solidarité. tubaab yi de solidarité. sunu sunu réew yi bu fekkee ne. dugguñu ci yenn tolof tolof fii nga xam ne gis nañ ko feneen. Mhm. solidarité bi ñu am suñu biir la. Mhm. ni ma koy defee la ko yeneen sénégalais defee. Mhm. xëy na ñoo xam ne sax amuñu suma moyen. bu ko defee bokk gën a metti ci ñoom. parce que ki yàlla dafa may wërsëg muy bokk. xëy na du metti ci moom. waaye ka nga xam ne la ñu war a félicité mooy ki nga xam ne la mu yor doyu ko. Mhm. mu bokk ko ak mhm, mhm. te loolu nag aussi dafa fekk baax Sénégal. war ko gën a cultiver yar ci aussi sunu doom yi parce que léegi nag dañu am li naan occidentalisation maanaam dund tubaab. yow lay doon. sa jabar ak say doom. salaire bi du ndax mhm. li nga ci bëgg a def yëpp du ci so mhm. du ci mat mhm. waaye foog ñuy jàngal xale yi ñu mën a bokk euh, ndax ci sunu culture la bokk parce que yéen suñu euh, kilifa yi surtout impression boobu la faral di am euh, monsieur madame les enfants et le chien et pourtant du loolu moo am man du loolu laa découvrir en tout cas ci yow te loolu ak ci ci ak ci pratiquement képp ku nekk ci publique rek yemale woo mbir yi ci sa bopp super gaw ma lool def naa ne Sénégal quand Euh, loolu am na fi yal na fi sax. amiin amiin voilà et puis génération yi ñëw ñoom it ñu xam ne il faut ñu am euh, solidarité boobu. nu mhm. bokk yaatu. Mhm. Euh, te yàlla defal na nu loolu. Mhm. def naa ne moo tax mu aar ñu aussi ci tolof tolof yu bëri ñuy gis ci yeneen dëkk yi. dëkk naa dëkk yoo xam ne yi waxtu añ jotee. Ah, boo amul loo añee doo añ. Mhm. waaye fii nag boo fëggee ci bunt ñëw dugal sa loxo ci bool fu mu yem mhm. nag yem fa. Mhm. kon waaye nag warul tere aussi. ku ne di jéem a daanali doole sa bopp. donc it euh, solidarité bokkul aussi ak euh, ak wéeru. lu yomb waaw lu bëgg lu yomb ni ko xale yi waxee aussi <laughs> ah, voilà kooku it ku nekk rek war ngaa yëngu ca la nga ne. waaye nag ku ne la nga am nga bokk kook euh, ñi la wër. est-ce que yomb na boole responsabilité ak vie de famille xale yi xanaa léegi màgg nañu. waaw loolu nag mooy li gën a jafe ci boo nekkee ci engagement politique te mooy tax sax soxna yu bëri xëy na. Mhm. bu nu buggee dem ci politique du yomb. Mhm. ndax dañuy yor seen liggéey. yor kër ga. Mhm. yor it borom kër ga. Mhm. Eh, ñoom it ñu ngi ñoom seen problème <laughs> ñoom du ñu yombal toujours mbir eh, eh. yor goro yi ak njëkk yi. mais yow nu mu woon ci yow. Euh, euh, yor borom kër yor xale yi ak goro yi loolu nu mu yombee woon ci yow. ci ah, jamono bi nga jiite yooyu dara yomb ci dara yomb ci. Mhm. da ngay am nag borom kër gu la comprendre. moom it maa ngi koy siyaare bu baax a baax. di ko ñaanal. suñu papa moom suñu nijaay boobu duñu ko gis jamais moom anamu. waaw moom mu ngi ci ginnaaw di ñaan. Eh, waaw mu ngi ñaan baax yor ku gi ak di jàppale. <laughs> ci fànn yi bare bare bare bare allah eh. Eh, balaa ngay dem am na Ablaye Der lu mu bëgg laaj certainement mais am na album bu ndaw boo xamante ni dama ko préparé pour yow madame le ministre on va regarder juste quelques photos yoo xamante ni yow la bàyyi nga commenté ko en même temps ci ndimbalu Pape Samba ak tonton Mac mi réalisé émission bi on regarde en même temps d'abord première photo. <laughs> est-ce que mën nañ ko am en plein écran s'il vous plaît euh, voilà. Euh, lii defe naa première année université la woon. c'était en France ça en France à Grenoble waaw. d'accord voilà voilà jànge. parce qu'on a même reçu ay nit yoo jàngandool à l'époque en France ñuy def ay témoignages yu daw yaram ci yow euh, et je reste convaincu que bu ñu gisee photos yi daf leen di fàttali bii nii style bi moo xewoon à l'époque. waaw mooy xam nga maa ngi lay wax mbiru scorpion daayil suet waaw looloo méngoo nag suñu jamono. macha allah deuxième photo. <laughs> boobu day defe naa seconde laa waroon a nekk. wala yu mel ay ci ay. 16 ans ki 17 ans la toll. parce que c'est sûr que photo bi à l'époque euh, di nga mënoon concurrence ak ñoom nday ndaak mannequin yi. <laughs> waaw waaw at bi buy jot nag aussi ngay voilà mooy. jëm jëm mag aussi voilà di doon doon bi di ñëw it moom it. fan nga fan nga defee seconde euh, Kaolack wala Grand non maa ngi ko defee lycée Van Vollenhoven. Euh, muy vent volant ko doon tuddee mooy lamin Gueye. Mhm. fii fala fala amee bac. d'accord dafa mel ne jàngee na Tamba aussi suma ma c'est ça parce que fala de terminer école primaire. Mhm. ak sama papa moo doon médecin bi foofu. ah, ah yaay doon fa sage-femme. d'accord voilà. on ku nekk Tamba comme Carrefour la da ngay dégg làkk yu bëri à part wolof bi ak français bi peut-être ak anglais bi ban beneen làkk bu nekk fii Sénégal nga dégg. malheureusement ci wolof bi rek laa yem. kese kese ci yoo xam ne yi boo ko waxee danaa ko dégg waaye du ma ko wax comme ça su ma toogee bu ñuy jëw dañuy defe ne déggu ma. <laughs> kooku sunu sunu ay feemu politicien la mais daal li nga xam ne maîtriser naa ko wolof la moom. d' mooy suma suma làkk. nañu xool beneen photo bi. waaw bii maa ngi woon Asbef. Asbef ndax euh, liggéey naa fa. Euh, ndeysaan ki ne suma ginnaaw ndem si yàlla Mamadou Ndoye moo doon sunu directeur financier. d' accord maa ngi ziyaare njabootam. Mm-hmm. surtout ay doomam ndax soxnaam it jóge na fi. Mm-hmm. waaw ah, boobu ci organisation non gouvernementale lañ doon liggéey. Mhm. Eh, ci wàllu santé jigéen ñi ak eh, planning ak yu mel noonu. Mhm. doon jamono joo xam ne nag aussi maa ngi koy fàttaliku ak eh, ak mbégte. Mhm. di nuyu aussi ña fay liggéey ba tey te ne fa. maa leen di nuyu bu baax ñoom it. d'accord euh, fii fii sañse bi lan la parce que gisuñu photo bi bu baax. tay baas la li li la ah ndoket la. <laughs> <laughs> voilà nañu xool beneen photo ak madame le premier ministre bii nuruwu la sax. bii maa ngi woon Côte d'Ivoire. ah ndax fonction bi fekk na ma nekk fonctionnaire international. d'accord euh, Fonds des Nations Unies pour la population. Euh, booba nag am na plus de trente ans quand même. voilà te photo bi da nga niroog suñu benn collègue mu ngi nekk team Baye Cheikh moom moo démarché sax tey ba ñu am la muy Mame Sira Konaté elle ressemble à Mame Sira euh, ci photo bi euh, voilà donc c' était juste quelques photos yu ñu bëggoon partagé ak madame le premier ministre Abdoulaye Der ñu bàyyi la nga tëj waxtaan bi parce que dafa war a dem àggali nag ndog bi këram. waaw depuis sànq yaa ngi naan Dice ba ban ban seen ban morceau avant ñuy revenir moo la gën a neex entre Telegraph Road Brother Inams. waaw Romeo Romeo and hmm? Juliet. on every Romeo and Juliet. ah Romeo ah. <laughs> ah, ah, guitare acoustique bu neex euh, lañ ko tëggee guitare euh, acoustique la ko Mark Knopfler. oui. jouer donc waay waay waay ah oui non c'est pour te dire que man du politique bi rek moo may intéressé que euh, mm. affaire yi demee mais mais fa la ñuy fa la ñuy delluwaat parce que pour jeexal mais voilà pour jeexal mm-hmm. et pour ne pas tënk waxtaan bi yëpp aussi sur euh, reddition des comptes mm-hmm. euh, traque des biens mal acquis ni mu la ko mm-hmm. doon waxee sànq su amoon égérie dëggantaan dañ naan ak image yow yow yow lay doon mais bon malheureusement ni sur une liste de vingt sept personnalités finalement gis nañ nu mu nu mu mujjee ak coow li ci li ci li ci am yëpp. Mhm. donc les sénégalais aussi restent sur ce plan là. mais jeexul saa yu. Euh, bon on a du mal dafa jeexul du mal à le croire dafa mel ni enterrement de première classe su CREI sax lañ nekk di. assister nii mais bon je ne vais pas insister pour que débat bi bañ focaliser wu. ci mhm. euh, ci euh, reddition des comptes traque des biens mal acquis damay delluwaat Kaolack. Euh, parce que sànq bi mu ko doon wax bon déroulé wu ma logique bi ma fa yóbbu woon yëpp bi mu la naan bon yaa ngi woon Grand yoof gisaat nañ la nga fay yëngu et même selon des informations ay kilifa opérateur économique ak yooyu mm-hmm. yaa ngi leen di rencontrer des cadres de de Kaolack aussi yaa ngi leen di gis régulièrement ngeen di mm-hmm. tenir ay euh, ay ay réunion wala séance de travail je ne sais pas comment est l'appeler ak développement bi ñu fay xaar yëpp euh, li liñ fay xaar yëpp yow lan mooy sa ambition lan mooy sa taxawaay pour pour Kaolack. xam nga maa ngi naan fala laa cosaanoo mhm. donc am na as tuut lu ma ci fekkee suma maam Alioune Sow moom it opérateur économique la woon. Mhm. Kaolack dafa doonoon euh, poumon économique xëtëru koom-koomu Sénégal. Mhm. capitale de l'arachide Euh, amoon nekkoon sax aussi à un moment capitale culturelle. Mhm. nañ affaire Ngoyaan waykat bëri jóge fa. Mhm. nekkoon aussi ville bu bëri ay intellectuels. Mhm. ci fukki euh, premier ministre yeeg ñaar. juróom-ñett ya Kaolack jóge. donc mu doon ville boo xam ne amoon na taxawaay. ci réew mi euh, dem ba nag ci circonstances yi mu doon daanaka ville boo xam ne boo. fa cosaanoo gëj fa doo ko xàmmee sax. Mhm, mhm. Euh, dafa laaj nag aussi doomu Kaolack yëpp dugaat gàtt du gàtt ci seen loxo. Mhm, moo tax ma doon wax ne war ñu lancé benn programme un dollar wala un euro. Euh, pour Kaolack. comme seen chaîne bi internationale la. mu profité ci def ci publicité. waaw quand même voilà <laughs> pour que Saloum bu ne foo munti ne. nga nangu def virement un euro. wala un dollar. ñu yóbbu ko nag fu woor foo xam ne fii moom. Euh, mm-hmm. fépp fu ñu koy def rek. fu la créé yu dul woowee wala of nag. déedéet kooku dañ koy yóbbu ci <laughs> mun na nekk ci notaire wala ci avocat. Mm-hmm. ñu defar ci voilà école yi. Euh, bale ci dëkk bi. Mm-hmm. saxal ci ay ay garab. parce que maire bi du mën a def lépp. dëgg la voilà maire bi am na ambition. waaye dañ ko war a jàppale aussi. Euh, citoyens yi aussi dugal seen loxo ci dëkk ba. am na ci projet boo xam ne bi aussi muy projet du port. du projet aussi boo xam ne président. def na ko aussi ci programme am mhm, mhm, mhm. Euh, lépp loo xam ne lii la mën nañ cee dox wax ci. Euh, pour que loolu am. parce que port bi bu xasee am rek. Euh, dina aussi dekkali dëkk ba. c'est vrai que programme Kaolack c'est vrai que Kaolack président Macky Sall digoon na leen ay affaires yu bëri. waaw ñu ngi ci ñu ngi ci ñu ngi ci parce que xam nga ne port de nga bi inauguré nañ ko. foofu ci Sine Saalum la ba tey. du Kaolack rek Sine Saalum daanaka la nu mën a wax. donc li ñu ci bëgg mooy doomu Kaolack yi dellu siwaat ñoom it sancuwaat fa. Mhm. defaraat kër yi. surtout ba mu nekkaat daal une ville boo xam ne bi mooy raw mooy raw Thiès. voilà parce que ca jamono nag ñoo rawoon Thiès waaye dafa mel ni. <laughs> Thiès a ngi bëgg a yëngu ay sa fi nekk très rapidement waaw vas-y uh-huh. est-ce que am na ambition dem ba briguer mandat présidentiel. voilà dernière question. waaw xam nga boo nekkee jullit. Mhm. Euh, da ngay ñaan gudd fan ak wér gu yaram. Mhm. loolooy li ëpp solo. Euh, fi ñu toll nii ñu ngi ci jamonoy président Macky Sall. Mhm. mu def premier mandat. Mhm. am ci ay ambition yoo xam ne dañu ko ci jàppale. pour mhm. mu réussir ci def mu def ci lu bari nag aussi. yooyu di ko fàttali aussi da ciy baax. wax naa sànq assurance maladie universelle bourse familiale trois cent mille familles di jot xaalis. bu njëkk ba da nga daan doon fonctionnaire wala nga nekk élève am bourse wala à la traite li euh, mu def ci wàllu électricité. kuy xamaj bi gis ngeen ne mhm. wàññeeku na bu baax a baax. mais mu ngi am ba tey de. waaw bu yàggul rek <laughs> bu yàggul rek mu ngi inauguré benn centrale. yeneen war cee topp. Mhm, mhm. njëg yi kooku it ñun ñii dem marché. amul benn njëg bu yokk. ci ñeenti at. ba njëg di wàcc sax. donc yooyu yëpp dafa am solo. pour que ñu accompagner ko ci. Euh, bëgg nag aussi mu mën a continuer li muy def ba am deuxième mandat. incha allah. incha allah ñu dund ñun fekkee mhm. loolu. bu mhm. ñu cee yeggee nag. Mhm. nga laajaat ma question bi. incha allah <laughs> merci Mamadou Mouhamed Ndiaye euh, yow la ñuy jeexalee ak euh, madame le premier ministre euh, juste rappeler bi coow li ci da dem Kaolack doo dem Kaolack man j'étais présent parce que xew bi maa doon animé bi ñu la koy proposé je rappelle que c'était dans l'air du temps waxtaan indi woon ak ambiance ba ñu proposé ko après le lendemain pas compris a nekk Sénégal te ku ci nekk Kaolack la fekk baax euh, bi ñu leen dajalee keroog euh, je pense que loolu moo indi woon question bi te kenn ku ne euh, sa dëkk ngay xeexal man bu doon sama sago sax nga ñëw Thiès parce que Thiès wala man nga nekk nga eh, nekk dañ a bëgg a raw nag. <laughs> ñu jeexal ak yow. Kaolack Maître El Hadji Diouf nga fa de. d'accord Buur Saloum. am déet waaw Kaolack kay ñëpp nga fa ah moom foofu la cosaanoo. Mhm. fa la te na fa doole teg waaw moom kay moo tax ñu war a dajale doole yëpp. justement mhm. puisque puisque ñoo bokk euh, majorité présidentielle. Mhm. d'ailleurs mhm. Euh, ñun ñëpp ku ci ne ci li nga mën ak ci li nga xam. Euh, ñu boole yëpp. pour que la ville mën a avancer. Kaolack nag am y' a un maire. Mhm. moom it ñu jàppale ko. Mhm. Mhm. pour que ambition yi mu am. pour dëkk ba aussi mu antu. incha euh, allah loolu di investissement citoyen. pour sunu dëkk ni ma ko waxee sànq. bu ku nekk defalee sa dëkk ba nga cosaanoo. wala nga def ko koñ ba nga dëkk. Euh, defe naa ne bu boobaa duñu xaar rek état nag am na ambition président am na ambition waaye ñun ñii citoyens yi aussi. war nañu dugal sunu loxo ci mbir mi. incha allah waaw ñu ñu ñu bàyyi ko nag mu dem nag. waaw euh, parce que mu ngi gën a mu ngi gën a euh, guddi yan kàddu ngay tëjee pour pour sénégalais yëpp. waaw di leen euh, di leen féliciter ci ci émission bi. merci ni ngeen ko waxee. yi aussi daf ci baax. Mm-hmm. bu nu wooree ba ba ngoon. Mm-hmm. aussi waaw dina nu waar ci bëccëg bi. Mm-hmm. bu nu dogee ba noppi aussi nu waxtaanee àdduna. parce que nag àdduna ak. ak ak diineem ñoo ànd. ñoo euh, surtout ci weeru koor. Mm-hmm, mm-hmm. Euh, di leen félicité bu baax di nuyu soxna yi. jërëjëf euh, di aussi nuyu auditeurs yi. di mm-hmm. ñaan yàlla may ñu nu àggali sunu koor. ci jàmm ak salaam. ñaanal président de la république ñaanal réew mi kilifa yëpp. parce que Sénégal nag yàlla def na fi jàmm. dañuy toujours ñaan nag. Mm-hmm. mu saxal ko fi. incha allah ndax jamono yi ñu nekk daf di jamono yoo xam ne yu xaw a euh, doy waar la. Mm-hmm. wàllu sécurité. Mm-hmm. waaye ñun ñëpp rek nu nu ñaan te fagaru aussi. voilà euh, incha allah jërëjëf. est-ce que sañ naa laa gunge ak lii. <laughs> <laughs> merci beaucoup. merci à bientôt merci à bientôt merci Ablaye Der merci ah soxna si ngay seeti merci beaucoup <laughs> voilà c'est un très beau titre moom la wax sànq et ça nous rappelle beaucoup de souvenirs ba léegi rek ñu ngi àndandoo ak yéen si vous nous rejoignez 23h59 euh, mooy euh, doog jot dama bëgg ñu wax ci wàllu euh, social moom du Mouhamed Ndiaye ci sa kanam parce que Mojo Peex dafa demoon seeti bay Fall yi te ñoom itam dañuy dox ci social en même temps Djilo Boji ak mam Fatou Ndoye ñoom tamit ñu ngi préparé wu ci ginnaaw dinañu rejoindre ci général bi alors ñoom Baye Fall yi dañu yàgg ci social je pense qu'on peut regarder reportage bi. waaw loolu Pape Cheikh dëgg la ndaxte maa ngi introduit ki xamante ne mooy Serigne Abdou Aziz mhm. di sët ci maam Serap Fall. Mhm. mu ni ma euh, euh, bi ñu ko commencé maam a Fall mi ngi ko commencé woon ci. mi ngi ko commencé woon ci. Euh, fukki bool ak ñaar ak mhm. benn super mhm. tey mi ngi dem ci téeméeri bool ak juróom fukk ak ñaar mhm. nga xamante ni loolu dox na social nag yaakaar naa bu ñu ko dee wax ba ñëw ci Baye Fall dañ taxaw bi ma demee Touba nag maa ngi njëkk ci kër Cheikh Rijal Seck bu fi jógee ma jaar ci ki nga xamante ni mooy sëñ Cheikh jëm sëñ Cheikh Ndigal Fall doo ko dem nag fi nga xamante ni mooy kaw bu fi nga xamante ni nag mooy Jurbel ci téeméeri bool yi ak juróom fukk ak ñaar ñu dem seetaan reportage boobu te ñëwaat ci Serigne Touba euh, moo woowoon borom kër gi euh, yëgle woon ci ci njaareem bu xaatul Mubaarak euh, woowoon kilifa gu gum daan bu masaan am yitte lu muy yëgle la ku ñuy wax sëñ Malick Ndiaye comme weer yu feeñ nii mu ne ko na nga wax njaareem gépp hmm, léegi ku desal de su xadd rek na ko indi fii na ko indil ci barab bi bu xaatul Mubaarak Serigne Ridial ndax moom wóorloo wuñ ko dañ koo liggéeyloo. bi loolu amee euh, euh, waa njaareem yëpp euh, des xadd yi am na ci ñooñ sax farlu nañ defaree gàtt ca ñi nettali histoire bi nam demee bi ñu ko defee ba ci waxtu wi rek su su ngeen ñëw fii ci la ñu tëgg gajal yi ndënd yi ngeen gis ndogu yi itam demoon na ba xamal ko ni ko bis boo boo ma noppee gis wala nga dem ba gisatoo sax ko sant Mbàkke mën na mën na mën na la mën na la mën na dekk sa sëriñ togg ñam woowu ñu fonk ko ndax moom mooy sun mujj ndigal ci sëriñ Tuubaa te xam nga li ci togg ñam joxe loolu moom yëpp xam nañ ko Euh, reggal benn julli rek moo gën tabax junniy juma. Cheikh Ibrahima mi ngi ñëw njaari 1915 foofu la ko tàmbalee di togg ba sëñ Touba dem 1927. Mm-hmm. lii ñëpp xamuñu nu muy nu muy toll moo tax duñ mën a xamit lii génn nu muy toll. loolu nga tudde social. Mm-hmm. ñi ñu ci war a dimbali ak ñi ñu ci war a jox cër ñoo ngi leen ko ciy jox. añ togg añ togg yi reer waaye li ñuy togg mu tudd ndog moom sëñ ba rek la jëm buñ demee foofa nag sëñ ba ñañ fa ñoom fa ba ñoo koy séddalewaat sama waa kër yóbbu ko fi ñu leen ko yóbbuloo ñu doog a wàññikuwaat indi ak seeni labi xott waaye doon loo xam ne ñun ñu koy togg dañ ciy tibblu wala ñu ciy lekk. waaw suñu sëriñ daal li fi mi ngi woor bu doon woor at mi it ñu koy toggal ndogu. lu luñ fi def rek suñu maam Cheikh Ibra Fall tax ndax ci lañ tàmbalee ci moom liggéey bi ndogu yi di ko ci togg fukki dab ak ñaarit akub super moom la daan doon moom lañ ko tàmbalee woon loolee moom la suñu maam Cheikh Ibra di dox ak moom ba agsi ba fii mu agsi nii tey boobee daa wax ni lu ma ci waay joxit ma ma ma danaa la ko fulal ba nga xamante ni suñ maam làqu na suñu bàyyi nu ñu sëñ Mbour Moustapha Fall di ko dox daaw rek sëñ Sidi Muxtaar wax na ko ni bi ko sëñ Mbër Moustapha Fall di tàmbali day fukki dab ak ñaar ak suppeer la woon loolee ba tey noonu moom nee na fekk na loola moo tax daaw bi ñu ko yotee téeméeri dab yu teg moo tax mu sant ci lool ba fii ne nii tey jii noo ngi nii ci tey téeméer ak juróom fukk ak ñaar tegal nañ ko tey jii te loo xam ne lépp bu ay booleel yu mag yoo xam ne noonu lañ ko liggéeyee. diggante ay nag ay ganaar ak nen ak mburu rek moom lañu koy liggéeyee. dëkk boobu nag euh, ñu euh, euh, da koy nuru te ñoom. non Baye Fall mu ni lu tànk suñu sëriñ mi ngi woor. Mhm. ñuy togg ndog yi di ko yóbbu. Mhm, mhm. que ñoom ndigal la nga xamante moom la Cheikh Fall duñu jëfee. ba léegi nii ci loolu lañ nekk. mu nekk loo xam si lu am solo la. ki nga xamante ni mooy sëñ Cheikh mooy sëñ sëñ sëñ Abdou Aziz Fall. Touare Fakal da àndandoo njaboot gépp ñu togg téeméeri bool ak juróom fukk ak ñaar mhm. def ko ci ay camion mhm. def camion mburu yóbbu ko ci sëñ Sidi Moxtaar mhm. sëñ Sidi Moxtaar bu ñu àggee dañuy toog mu jox leen ndigal ne kër Serigne Touba yëpp kenn ku ne na fa dugal bool yi. mu nekk loo xam si lu am solo la. Mhm. que euh, jëf moo taxoon maam euh, Cheikh Issa Diène. Mhm. kër sàkket gi bu Serigne Touba doon romb ci kër kër sàkket gi ci njaarim mhm. moom euh, kër sàkket di naan ko bul fàtte Issa ak waa a tax maam Cheikh Ibra tamit jëf moo tax lii mu am ci Serigne Touba moom ko Serigne Touba. moo tax jëf mu nekk loo am solo nga gis social boobu nga xamante ni ñu ngi koy def Touba noonu la ko Serigne Cheikh Ndigal Fall di defee. noonu la ko Touba Fakal waa Kaw Sara Fall di defee. noonu la ko ñëpp di defee ñi xamante ne ay Baye Fall ci àddina bépp dem mhm. rek maa ngi seetaan benn reportage boo xam si ne ñi nekk France ay Baye yoo xam si ne nekk France ñoom tamit ñu def noonu ay ndogu mu leer na Baye Fall solidarité mhm. boo dee wër solidarité ba ñëw ci Baye rek mhm. xam ni fii la solidarité am mu nekkoon affaire boo xam si ne am solo la Pape Cheikh dama déplacé fii Dakar taa sa moto dem ba dem ba dem def reportage ba <laughs> ma gërëm mu jàppale ma ci bu baax a baax. waaw euh, moo tax euh, guddik maam Cheikh Ibrahima Fall dañ ko amal incha allah dimanche 26 juin 26 euh, juin bu soobee yàlla ci vingtième jour weeru koor gi. Mhm. ak Chérif Abdourahmane Fall Tilala. loolu ñaar fukki fan yooyu. waaw mooy bi Cheikh Ibrahima Fall dajeeg Serigne Touba. la ñuy màggal loolu mooy ñaar fukki fan. ñaar fukki fan yi nag ca esplanade bu ñaari tali ak Chérif Abdourahmane Fall Tilala ñu tuddee ko guddik maam Cheikh mhm. donc defe naa guddi la boo xamante ni bëri na ay ngëneel mhm. loo ci ñaan sax sunu borom mën na la cee dimbali Euh, moom shérif bi sax euh, ñu ngi koy xaar ci jotaay bi ndax sama wayjur la mm-hmm. euh, ñu ngi koy ndokkeel bu baax ci guddeem googu nga xamee ni moo koy waajal incha allah ci vingtième jour weeru koor gi. ci esplanade mm-hmm. mais mm-hmm. guddi wa guddi guddi guddi gi mu dajeeg Serigne Touba. vingtième jour koor bi la wane wane wane wane Serigne Touba. guddi googu yaakaar naa ci lépp feeñ. macha allah yaakaar naa Serigne Touba bi mu feeñee. ci la Sénégal mel ni mu mel. macha allah macha allah jërëjëf guddi googu lu am solo la bu baax ta ñuy àggali ak koor gi bay dalal euh, suñu invité euh, ci wàllu tàggat yaram ak euh, Mame Fatou Ndoye Traoré tey mu indil ñu papi Djilo Bodji voilà euh, euh, j'aimerais euh, juste un message boo xamante ne ñu ngi ko jot ci sens citoyen wala sens civique ñu ñuy xamal ni bus Tata bu ligne 72 bi dafa coincé benn passage ci niveau autoroute ak mbaaw bi ba y a eu deux morts et sept blessés graves il paraît que chauffeur bi dafa daw donc yooyu ay mbir la yoo xamante ne ñu ngi ñu ko yónnee ci sens civique bi Sénégal nag ñoo far donc dañuy éviter xeetug maal silwise gi ñu nekkee faut qu'on évite tout ça c'est-à-dire la ñëpp la moo tax jàngaluñu ñu kenn dañuy wax rek ku ci nekk na nga xoolaat euh, sa comportement nañu xoolaat yar yi nañu xoolaat jikko yi euh, ci domaine yëpp la mën nañu éviter ñaawtee fi euh, bu ñu moytoo waaw sax man loo xam ne laa ko jàppee. yow da ngay baaral nag yow it may ñu nag yow it nag may ñu nag yow tamit may ñu nag ma peex. nit da am. savoir vivre mhm. parce que Pape Cheikh mhm. ñun ay sénégalais lañu mais mhm. dafa am loo xamante ne mu ngi fiy xew te ñëpp dañ koy bàyyi mu jàll man je crois que euh, am na loo xamante ne alkaate yi dañoo war a génne waat seen yat di dóor ndax sénégalais yi Pape Cheikh réew nañ xetu réewaande goo xamante ne nañ ma baal ci wax bi bon nañ bon xetu bon goo xamante ni dafa dem ba à la fin yow dootoo comprendre que ñun est-ce que ñun sénégalais lañu wala nekkatuñ sénégalais te pourtant nit ñu baax yaa ngi fi royukaay yaa ngi fi dox di xàq ni ko di tuf <laughs> Pape Cheikh ko euh, sa nawle di jéem a doublé di jaay énervé je crois que man ce son des vraiment ay yoo xam ne dañ ko war a parce que parce que ñoom ñiy dawal du ñu mës a dee macha allah ñi nga xamante ne nañuy yeb Hmm. daal ñoom ñooy faatu saa su ne daal yal na leen yàlla yërëm daal vraiment. sanction yi dafa war a wàcc Pape. très bien donc bëgguñu wone image yooyu noonu moo tax euh, mais on tenait absolument à en parler euh, parce que message la bu ñu jot ci sens civique donc euh, mu ngi am lu toll ci ñaari deux morts et sept blessés graves ñu ñu xamal ni chauffeur bi dafa daw donc ñu def très attention surtout ci comportement yi ak weeru koor gi surtout parce que koor moom defe naa boo ci amul sens civique du mën a baax bu 14h jotee ay sotti pay fal tu as euh, yenn saa yi da ngay gis ay nit yoo xamante ni euh, da ngay ree waaw parce que ñëpp naan euh, laaj. la sax dañu doxantu côté côté Wakam dem ngoox yooyu xool sénégalais yi naka lañuy def taximan yeeg yooyu léegi bu dee élément bi pare na. Mhm. mun nañ ko seetaan a ñu dellu siwaat donc c'est un reportage réalisé par Aïssatou Paye Fall à la rencontre de ces ak naka la ñuy wooree euh, ñun ñëpp man su ma wooree je dis souvent sama xol bi day tàng dafa histoire <laughs> waaw ñenn ñi seen xol day tàng am na ñoo xam ne duñu nangooti wax booy wax ak ñoom dañuy muuma am na ñoo xam ne moom bu 14h jotee na la leer na dootuñu amati benn njëriñ gis nga ki nga xam ne dafa dugg si suufu mool yi jël benn affaire euh, sàngoo ko mhm. ba 17h en général nag dañuy nelaw ba 17h 18h mhm. mhm. ñu doog a jóg mu leer na leen ne léegi li des bëritul ñu jóg nag toog di pare xaar ndogu voilà merci beaucoup Aïssatou Paye Fall je rappelle que mën ngeen am replay yu reportage bi euh, ci youtube bi slash tfm dafa continuer ak mouvance weeru koor est-ce Euh, euh, jigéen wérul euh, naka la war a mel ci weeru koor gi. effectivement Pape Cheikh comme ni nga ko waxee rek tey dañu demoon seeti ki nga xamante ne moom moo di docteur Diop nekk fee nekk ci clinique clinique Nest vraiment mu wax ñu bu baax a baax ki nga xamante ne dafa wan loor lan la. oui vas-y vas nga xamante ne dafa wan lor maa ngi jégaluwaat bu baax donc ki nga xamante ne dafa wan lor est-ce que war na mun a woor ci weer bi nga xamante ne moom la ñu tuddee weeru Ramadan. jigéenu biir mën na woor mais am na ay conditions euh, soo ëmbee koor gi egg si avant ngay woor da nga war a am sa autorisation wu médecin n'est-ce pas parce que selon ëmb bi euh, am na yenn feebar yu muy àndal yoo xam ne mënul ànd ak woor su nekkee par exemple da nga ëmb ànd ak jabet euh, wala nga ëmb ànd ak hypertension artérielle am tension wala nga ëmb ànd ak anémie mënuloo woor parce que soo wooree mën na yokk ëmb bi mën na indi ay jafe-jafe ci ëmb bi su nekkee tamit da nga ëmb euh, am ay jafe-jafe di woccu di di di di tufli di di jafte si woor bi mën na ko yokk tuuti n'est-ce pas donc euh, euh, fin bi tamit li ñu tuddee phase de croissance rapide soo wooree développement xale bi du demee noonu trop trop trop te sooy wasin nga wasin xale bu tuuti donc dans tous les cas jigéenu biir balaa muy woor mu laaj d'abord gynécologue am wala sage-femme am y bi ñetti weer yu njëkk yi en général da ngay am ay wàccu ay jafte ay ay bi euh, nga war ay naan ay garab pour wàccu yu mel noonu dès la mesure que ngay jël garab trois fois par jour rek waruloo woo début grossesse bi daal da ngay affaiblir première chose sans compter que soo wooree da ngay déshydraté fin grossesse bi mooy phase de croissance rapide. boobu tamit xale bi dafa war a jël à peu près 250 par semaine entre 36 semaines ba 40 semaines donc soo wooree xale bi du jël 250 par semaine donc il va du nekk prématuré xëy na phase prématurée passé na mais mën na am un petit poids de naissance te xam nañu petit poids de naissance du sotti maintenant am na ñoo xam ne seen début ëmb du ñu am problème du ñu jafte du ñu am benn problème du sax sax ñu jël ay garab donc bu boobaa mën sa médecin autorisé xëy soo wooree mën a wàññi croissance bi parce que croissance bi xëy na dafa commencé ëpp soo moytu di nga am ay bébé ay 4 kilos yu mel noonu donc ñoom xëy na koor bi sax mën na leen deuxièmement su nekkee da ngay am na des obligations premier bi mooy da ngay xëdd kenn du woor te doo xëdd ci jigéenu biir da ngay xëdd xëdd ci biir xëdd bi da nga war a lekk li ñu tuddee ay sucre ñam yoo xam ne soo ko lekkee dina la may énergie pour toute la journée première chose deuxièmement heure dog su jotee da ngay dog ak euh, ndox foog nga naan ndox bu tàng un peu pour biir bi ubbeeku et cetera lekk lu am suukar pour récupérer un peu suukar bi nga ñàkkoon après nag nga naan ndox bu bëri parce que pendant 12 heures de temps yi nga toog peut-être lekkuloo naanaloo di nga déshydraté donc il faut nga naan ndox bu bëri et troisièmement après quelques heures après nga reer lu léger am suukar évidemment pour récupérer warul niin trop trop trop warul am un peu de gras n'est-ce pas euh, entre instant bi nga euh, reeree ak instant bi ngay tëdd di nga xaw doxantu tuuti wala nga bàyyi fa benn au moins une heure de temps n'est-ce pas déjà rythme rythme ramadan dafa metti soo bëggee euh, doc ay côté timis reer peut-être côté géew le 22h 23h pour que 5h du matin nga jóg xëddaat sa temps de sommeil dafay wàññeeku loolu rek mën na indi ay jafe-jafe donc sur le principe moom normalement jigéenu bi warul woor normalement. voilà docteur Abdoulaye Diop lañ doon déglu xam-xamam màcc lool ci naka la ñuy toppatoowee jigéen wérul euh, surtout ak weeru koor gi ma e, effectivement Pape Cheikh comme ni nga ko waxee rek au passage may remercier Aïda Ndiir nga xamante ne moom moo di seen responsable de communication foofu ca clinique Nesk donc daal ci tënk bu ñu ko déggee rek Pape Cheikh jigéen bu xamante ne dafa wan lor daal warul woo tànk ki nga xamante ne moom moo di médecin am wax na ko maanaam bu ñu dégluwaatee élément bi hmm. dinañ ko déglu bu fekkee dañu dem ci wàllu islam aussi hmm. l'islam jéggal na képp koo xamante ne da nga wan lor Mhm. nga woor ba après bu passé nag boo wasinee ci jàmm di nga mën a fay donc ki nga xamante ne nag moom dafay woor nga xamante ne dafa wann lor te mu am autorisation ci médecin am pour mu woor maanaam amul jabet amul ay vomissement wala amul malaise kooku moom permettre nañ ko mu woor mais li liñ koy conseiller rek à partir de sept mois il faut mu arrêter obligatoirement koor bi parce que ci ñetti weer wala ñaari weer yi des ci la xale bi di war a développer wu ce qui fait que dafa woor donc xale bi du mënati am développement wala croissance ci biiru yaayam donc ba tax na ñu ngi wax bu baax nit yi nañ ci def attention na ki nga di woor dañ koy naan na respecté bu baax xëdd au tax mu koy respecté parce que ku woor da ngay perte suukar bu bare mhm. donc apport en sucre boobu ci foofu nga ko mën a jëlee ci xëdd bi lekk bu baax a baax mhm. naan bu baax li nga xamante ne moom moo di ndog ndox du moins donc boo jàllee ci ndog bi aussi on te demande de boire li nga xamante ne moom la ñu wax sexew wala kenkeliba wax la aussi nga lekk mburu a tàndarma waaye li ci gën a am solo moo di nga naan ndox aussi bu bare bu fekkee ne da ngay reer tamit ñu ngi lay diggal nga xaar 3 heures de temps après mais on t'interdit de lekk ay ceebu jën ak yooyu yëpp parce la indil ay gàllankoor yi nga xamante ne ay ne dafa wan na lox Pape Cheikh. ruy fonde nañ ko mais alfi alfi nee na protéine moom dafa baax ci weeru koor gi. bu ñu bañee ko waaw xam nga que euh, comme li Aïssatou wane léegi nit ñi nga xam ne 4 heures seen kattan jeex. Mhm. dafay fekk ni seen alimentation Pape dafa dafa riche en protéine. Mhm. te xam nga soo nee protéine dangay foog ne yàpp rek moo koy joxe. Mhm. mais protéine animale dafa am protéine végétale dafa am. Ah. lépp loo xamante ni ci gàncax bi lay jógee daf ñu am yu ñu ciy andil protéine donc soo faral di gis ay wey yu damb karaw yu chuté. Euh, maanaam euh, ras-rasu kanam yooyu yëpp ay signes waa ay signes manque de protéine donc su nen bokk na ci protéine euh, animale yoo xamante ne bokk na ci source yi gën a important yu ñu mën a jox protéine viande blanche muy lépp li nga xam ne mooy ginaar ay dëndu ginaar yu baax yooyu pap waaw yooyu bëri na protéine viande rouge mais consommation modérée parce que viande rouge bu bëri tous les jours pap c'est pas recommandé c'est pas recommandé lu ci mel ni charcuterie lu ci mel ni abats yooyu yëpp am na ay maanaam aba mooy boo gisee ay resak ay fois yu baax yu déggal foie ay ay euh, ah. cœur yooyu ñuy lekk c'est riche en protéines fromage produit laitier mhm. à consommer pour indi sa li nga xamante ni mooy protéine donc su nit ñi di ndogu pap nañuy xool li ñuy lekk ceeb ceeb ceeb tout le temps mhm. nit ñi dañ ko war a changer. donc di lekk di varier li ngay lekk xool ndax am na nen xool ndax am na yàpp xool ndax am na légume mburu bi ma doo wax léegi donc nit ki suy lekk dafa war a maanaam def calcule mhm. soo defee calcule ci li ngay lekk chaque jour nga varier li ngay lekk. comme ni ñuy defee tey ceebu jën suba cuub ginnaaw mhm. suba supp kànja mhm. noonu la ñu waree lekk tey yàpp suba ginaar ginnaaw suba nen ginnaawaat suba nga nga lekk lu riche en euh, mhm. produits laitiers mhm. mhm. donc loolu tam dina baax ci sunu apport en protéines voilà Mame Fatou Ndoye nous a rejoint ak euh, Djilo Bodji je voulais juste en profiter pour mu wax ci euh, alimentation bi Djilo ñu ngi lay papi ñu ngi lay nuyu ah merci d'être la dafa am régime yow boo am spécial bon maa nuyu ñëpp ñu fi nekk déjà waaw gars yi am na ñu koy faral di ko def Mm-hmm. yi topp di di jël ay légumes di jël ay fruits affaire mm-hmm. mais bon comme que man du ma jël du ma jël poids. Mm-hmm. su ma neexee vacances damay jeex. ok donc euh, aw ma aw ma aw ma lu tax ma koy jël quoi. d'accord mais am na ñoo xam ne dañ leen ko commandé. ok ok mais benn régime boo xamante ne da nga koy suivre yow. en tant que sportif non a ma benn régime bu may suivre. d'accord mais soo nekkee sa club. Ah, club euh, je pense que du ngeen du ngeen lekk lu ngeen. bëgg lekk am na ñu koy def mais duñ ko duñ ko. c'est pas obligatoire c'est doo ko waaye. Ah, d'accord c'est pas respecté quoi parce que joueurs yi ñoom lu leen neex rek. y a pas de médicament que vous prenez. non y a pas de médicament qu'on prend. d'accord normalement aliment ay ay aliments yu riche en sucre. normalement ñoom la ñu. waaye ba ci mel ni protéine yi ñoom ñoo ñu ëpp. waaye joxe énergie quoi ñu lekk ay fruits affaire yooyu noonu. le ah, matin affaire yooyu noonu. donc euh, d' accord super mais merci beaucoup Alfie pour ces conseils je rappelle que protéine kon dafa am solo mais pas en abuser parce qu'on dit tout le temps que excès yëpp dafa nuisible tout abus est euh, dangereux. voilà euh, on parle maintenant droit parce que ñun lépp la ñuy waxtaanee balaa ñuy waxtaanee sport Maimouna Gueye Bambalo def nga gëstu ci droit ak ak diine. Euh, benn reportage boo xamante ni dañu demoon xool. Mhm. parce que la plupart du temps bu yoon waxee dara dañ naan diine lii la ci wax. Mhm. muy am ay amalgam yu bëri yoo xamante ni da ciy am ba tax euh, dem nañ seeti benn avocat mu indil ñu déjà wax ñu droit ak li nga xamante ni mooy religion fan la ñu laalante ak li nga xamante ni mooy procédé yi fan la uutee duñ def lu dul déglu ko dellu si waat si plateau bi. européen te droit boobu mu ngi juddoo ci diggante Grèce ak Rome bu njëkk ñi nga xam ne dañ doon euh, jiite réew yi ñoom dañ doon wax ne seen pouvoir n'est-ce pas ci yàlla la jóge donc c'était un pouvoir d'origine divine ce qui fait que ñoom dañu amoon tous les pouvoirs ñoom ñoo doon euh, légiférer ñoo doon defar ay loi ñoom ñoo doon atte n'est-ce pas ñoom ñoo doon def lépp donc bi Auguste nekkee au pouvoir Rome commencé évoluer la ñu séparer le pouvoir d'origine divine n'est-ce pas le pouvoir temporel ak le pouvoir spirituel boobu la ñuy wax ne il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui lui appartient maanaam nañu bàyyee nit ñi li ñu moom ak yàlla aussi ñu bàyyee ko li mu moom boobu la ñu séparé église nes ce pas ak euh, pouvoir temporel mais puisque séparé nañ église ak pouvoir temporel loi yi nga xam ne ñoom dañ ko fa voté woon loi yooyu ñu ngi fóon ba léegi donc droit n'est-ce pas ak religion pour séparer ko dafay jafe trop ba tey ñun droit bi ñuy jàng nii n'est-ce technique yi ñuy jàngee amul benn différence ak technique yi nga xam ne borom xam-xam yi nga xam ne moom la ñuy utiliser pour interpréter la règle la règle religieuse que ce soit le droit musulman ou le droit chrétien amul benn différence dama lay jox benn exemple rek bu ñu nee un délit en matière pénale dañuy wax ne délit dafay am trois éléments élément matériel élément légal ak élément moral maanaam matériel mooy il faut que nit ki def affaire bi légal mooy il faut que loi bi prévoir ko élément moral mooy il faut que ki nga xam ne daf ko def mu amoon yéene commettre délit boobu cest dire moom ba muy jóg di jóg këram pour dem moom dafa amoon yéene pour def loolu loolu la ñuy wax élément moral amul benn religion boo xam ne dafay sanctionner nit koo xam ne dafa def benn faute bu fekkente ne faute boobu teyu te boo gisee ba tey élément moral boobu des ci droit muy par exemple que ce soit la faute civile ou bien la faute pénale mooy yéene maanaam maanaam xam nga yow même booy def dara dañ la naan yéeneel comprendre parce que yéene dafa am solo ci jullit amul lenn loo xam ne ah religion daf koy tere te droit du ko tere maintenant nag sanction yi sanction yi mun na am différence par exemple l'islam mun na wax ne par exemple ku rey nit dañ lay rey droit aussi dafay wax ne ku rey nit ah dafa am sanction buñ lay teg mun na ne mun na dem ba perpète tu comprends maintenant interprétation yi mun na wute voilà je pense que euh, loolu loolu leer na may mën a gëy bàmbaloo ni euh, lu lu lu diine mayewul droit mayewu ko. droit mayewu ko parce que moom mu ngi expliquer ni que euh, droit bi la plupart du temps si li nga xamante ni mooy religion lay inspiré woo maintenant que ça soit la religion chrétienne wala musulmane wala mu nekk toute autre forme de religion mais li ñu si mën a retenir Pape Cheikh mooy ni que trois formes de collaboration wala de régime moo mën a am entre droit ak li nga xamante ni mooy religion. Mhm. laïcité laïcité mooy ni que Euh, état bi du dugg ci religion bi religion bi tamit du dugg ci doxalinu état bi. te diine sax nee na lakum diinikum. waliya diin waliya diin voilà donc boobu mën nañ ci tiit euh, jël comme exemple mooy kaawu Sénégal wala France beneen bi mooy état confessionnel état confessionnel mooy ni que moom dafay euh, am état bi day am benn appartenance religieuse. Mhm. maanaam dafay am boo xamante ni moom mooy diine état bi donc genre régime boobu boo ko adopté mhm. président de la république pour nga nekk ko wala yenn fonction yi pour nga jël ko il faut nga bokk ci diine bi nga xamante ni mooy diine état bi. à titre d'exemple te loolu amul Sénégal diine état non ñun ñu ngi ci euh, état laïque. xam nga ñett la état laïque mooy comme genre Sénégal France. Ah. état confessionnel mooy boo xamante ni day nangu diine yépp mais état bi day am benn diine bu muy bokk. nga xamante ni mooy diine état bi. bu boobaa pour nga nekk fa président wala nga nekk fa ministre wala nga nekk fa fondé de pouvoir il faut nga nekk ci ci état bi. Amérique la ñuy waate. Amérique ñoom ñu ngi ci laïcité ba tey maintenant bi nga xamante ni pour confessionnel à titre d'exemple mën nañ ci jël royaume Norvège ak Mauritanie ah. ñoom ay état confessionnel maanaam nangu nañ yeneen diine yi mais hmm. état dafa far enfin dafa bokk ci benn diine bi ci mujj nag mooy li nga xamante ni mooy état euh, théocrates yi mhm. théocrates yi nag ñoom dañuy dañuy dañuy strict mhm. c'est-à-dire benn diine la ñuy jàpp diine boobu mooy dox ci dëkk bi moom da euh, mooy comme genre Arabie Saoudite wala Iran mhm. ñoom seen constitution sunna lay nekk ak li nga xamante ni mooy kaamil bi ñoom nanguwuñ beneen xeetu diine te pouvoir bi pour mu exercer dafay ressourcer wu si li nga xamante ni moom mooy Coran bi souvent ñoom seen jugement yi di choquer àdduna day choquer parce que ñoom euh, livre saint bi voilà ci charia lañ koy teg donc ñoom duñu nangu beneen xeetu diine te li nga xamante ni mooy religion bi moom mooy jiite état bi en fait. très bien je pense que c'est très intéressant comme ni nga koy defee chaque fois boo ñëwee euh, jox ñu loo xam ne def ñuy ëlëm euh, ak tagal bu xonk bi gay bambaloo. waaye sama xaw defante léegi nii bi élément bi jàll. <laughs> naa ko ko ruux tuuti. xam nga sama jëkkër ji nelaw na te damaa bëggoon mu seetaan ma ah yow tamit. <laughs> nga may mën a pipp nga bon c'est pas grave euh, Papy j'aimerais aussi te poser une question par rapport à ça euh, parce que Mame Fatou mu ngi pare yu garaaw ci wàllu ci wàllu sport euh, d'habitude dëkk yooyu ngeen nekk est-ce que yomb na pour ngeen pratiquer seen diine euh, facilement est-ce est que yomb na ci yéen waaw yomb na yomb na moom boo ko bëggee pratiquer boo nekkee sa gàlle sax mën nga ko def. je veux dire ay star ngeen foofu donc diggante xale yu jigéen ñi leen topp euh, euh, diggante woote téléphone yi diggante entraînement match euh, mm. temps wu julli temps daw xale yi tout ça est facile pour vous. waaye c' est pas difficile. yow yaa ngi daw quoi. c' pas difficile waaw ñu ngi. daw ci ay photo ak selfie rek nga yam y' a pas de numéro de téléphone. y' a pas de plus. ah ben super c' <laughs> euh, euh, euh, bu mujj bi ak li Ndeye Ndack def c' est vrai ci wàllu mode ngay waxtaanee le temps mais tey da nga dem seeti loo xamante ni tout le temps da wax ni sa combat la. ñu def consommation locale. waaw dafa am solo xam nga mbir mi moom dafa yaa moo tax mhm. nag jàllo ji yaatal ko mhm. ba tax na dafa am benn ville bu nekk diggante Dakar ak saint ñu naan ko Ngaye Mékhé mhm. foofu nag moo nekk euh, ville du cuir mhm. waaye xam nga 3 minutes dafa ndaw te QG dañ koy euh, dañuy jéem a xaj-xajal affaire yi ah. ba tax na ñu tënk voilà mu ngoog euh, Euh, aji joxaane alfi <laughs> euh, ba tax na ma dem Medina seeti benn jeune boo xamante ne Pape Cheikh jeune bu am euh, bu am jom mm. dafa mës a xëy ci benn défilé te nañ ko ràññee d'ailleurs ci mode Korité mm-hmm. génn ay dàll yoo xamante ne amatul mm. Dakar Paris États-Unis ñoom ñëpp dañoo commandé ay dàllam mu nekk fierté Sénégal parce que xam nga ni tabaski bu jibee rek. Mhm. ay der ngay gis dëkk bi yëpp der la. dëgg der yooyu nag sénégalais yi ndaxate ñoom duñ si bénéficié wu lu bari. malheureusement mhm. lu bëri dañ koy exporté bu ko defee nag ñoom ñooy dem defar ko jaayaat leen ko. wala boo indi li nga xamante ne mooy mbalit bi. patu daal waaw. Ah, waaw mu ngoog ba nga xamante ni euh, moom nag gis nga sama dàll bi kenn du xool ne dàll bi rafetul. Ah, waaw te dàll bi ñoom ñoo ko defar jox ma ko tey. ma pat boobu xale jigéeni plateau bi yëpp ku nekk am nga fa benn dàll nag Pape Cheikh ñuy promouvoir li nga xamante ne mooy consommation locale. Ah, parce que li nga xamante dañ koy defaree te réew mi ñun sénégalais waxuñ am benn complexe euh, di di di di ko sol wala di ko di ko di ko utiliser moo tax nag tey ma promouvoir li nga xamante ne mooy. Euh, artisan yi ah à ki nga xamante ne mooy sëñ Fallou ñu dem xooli reportage bi dellu si waat dàll boobu nag mhm. yaa ko moom yow nañ ko defaral su bëgg naa nga sol ko nag wan ko gars yi waaw mu nga nañ dem seetaan reportage bi dellu si waat liggéey ak léegi am na am na am na différence parce que léegi liggéey bi léegi la gën a professionnel bi dafa gën a yokk léegi parce que boo xoolee génération bi ci nekk sama classe yi ak ñeneen ñi ci bëri am na ñeneen lu ñuy liggéey par rapport bu njëkk parce que léegi li ñu gën a am ci bu ñuy liggéey moom mooy mooy matière bi néew ma daal yi njëkkee baaxul de mais xam nga bu njëkk ba ma saan wax daal cordonnier ah daal cordonnier kat moom mooy loolu boo ko solee mu yàq mais loolu amatul dama bëgg ñi nga xam ne dem di importer daal di ko jëndi nañ ko bàyyi ñu fi consommer local xam nga Sénégal xam nga euh, président daf ne consommer local bay dundee ñun ñu ne defar sol ñu li ñuy defar dañ ko war di sol ñu koy consommer fii Sénégal ñoom tamit aussi dañu ci war jàppale ñun tamit ñu jàppale suñu bopp lu ñu ci jàppale mooy ñu defar dàll yi mu gën a rafet mu gën a am finition. bëri nañu ay artisans yu am talent day dàkk. tout à fait am nañ talent mais malheureusement euh, sénégalais je crois que ñoom euh, dañoo dañoo xaw a enfin leen duñ leen duñ leen kii daal. duñ duñ duñu consommé ñun sénégalais yi waaw. Euh, waaw ñun ñëpp kay su ma nee sénégalais yi mooy ñu ñëpp. waaw voilà il est temps quand même que ñu mën a am benn benn benn mbëggeel boo xamante ne dañ koy am envers ñi nga xamante ne ñooy créer waaw tailleur bi la moo xam ñi nga xamante ne ci art bi lañ nekk wala artisan yi c'est important doomu réew mi lañ mhm. kon li ñuy dem di jënd feneen te ñoom seen dàll Pape Cheikh dafa baax kon di képp koo xamante daal yaa ngi bitim réew mhm. euh, sama sama yenn xarit nag du ay dóor ñoom ummi jaaju sëy ak ñoom kayre si ñoom ñëpp maa tax li bëgg la yow da nga bëgg ci ay reportage ak ay émission créé nga ba créé festival bu tudd Fesmoka pour euh, promouvoir euh, suñu gërëm bu baax loo bëgg Sénégal rek Sénégal bëgg na loolu lu ko raw mhm. tey wane nga ko à travers ce reportage là voilà. et euh, bu ñu gisee ñuy def consommer suñuy li ñu moom dañuy kontaan barki démb j'ai dit ça euh, la télé que Beyoncé mu ngi yére boo xamante ni euh, ki ko defar c'est une sénégalaise mhm. muy Célie Rabikan mhm. koor gee tax wane wuñu sax peut-être ay Beyoncé tout ce qui s'ensuit mais ñun nous sommes fiers de ñiy jëfandikoo suñu ay produits waaw dëgg la parce que xam dina mën a dugal après numéro bi ci Facebook bi pour ñi nga xamante ne dinañ bëgg commande bii nag yow yaa moom yow yaa ko moom mm. euh, Bouba rang na euh, kii rang na Ricardo chéri Alfi voilà Pape Cheikh ndeysaan Ricardo xam nga ni maa ko ëppale tànk franchement léegi kii yaa nee na ñi nga xamante ne bëgg nañ def pub nañ ñëw euh, ci euh, ñu euh, ba je crois que numéro bi après dinañ ko mën a def tamit ci Facebook bi comme ça ñu mën a wane li nga xamante ne ñoom tam la def surtout ñi nga xamante ñooy def ñooy jaay ay yére wala ay dàll ak saak parce que fête yaa ngi approché. super minuit 32 mooy doog a jot ñu ngi leen di ñaanal encore guddi gu neex ci télévision Futur Média presque au terme de ce rendez-vous parce que léegi xëdd jot pàcc bu mujj bi nag dañu ko jagleel lépp lu jëm ci wàllu tàggat yaram moom laa tuddee la reine de voyage am ak ñi muy dem di seeti on va pas en reparler ba di ko jooyloo comme la dernière fois Mame Fatou Ndoye Traoré euh, tey nga indil ñu Papy Djilo Bodji on a très envie de xool suñu euh, suñu gaynde yi euh, fan la ñu toll ak fu ñu jëm ak ñun. tout merci Pape Cheikh merci à tout le monde ñi toog si plateau bi yëpp euh, fii moom samay siste rek ñoo fi nekk ak sama frère bi di ma Diop. non kon euh, ñi toog ci plateau bi boole ci Aïda Samba Aïda kay toog fii Aïda voilà tabou bi dafa wow. <laughs> Ah, Pape Cheikh maam Fatou dafa maa bëgg rek ndeysaan. ndeysaan maa xoola raw maa la raw de ak Serigne Touba dafa maa bëgg moom. voilà il faut il faut que Aïda ñëw toog tamit moom it ci ci plateau bi dafa sonn ci tabou bi. Euh, très bien. Ah, donc euh, voilà tu, connais, tu, tu la connais. <laughs> Euh, maa ngi nuyu aussi sama suñu invité bi di Papi Djilo ji nga xam ne moom aussi macha allah bokk na ci xale yu xarañ. yi nekk ci wàllu tàggat yaram bi ci wàllu football bi et puis aussi euh, comme ni ko ñeneen ni ma ko waxee si ñeneen ni des fois j'ai l'impression de me répéter. mais moom aussi macha allah sénégalais yi bëgg nañ ko mais actualité am dafa riche. Mhm. parce que moom entre 2015 et 2016 euh, yaakaar naa am na lu bëri lu xew carrière am loo xam ne euh, tey dañuy kontaan mu toog fii ñu waxtaan ci ak moom. toj na Angleterre parce que toj na Angleterre toj na Allemagne. toj na Nantes. bon on va voir en tout cas am na benn élément bu ñu Marianne defal. Ah. léegi bu ñu ko defee ba pare nag ñu taxaw waxtaan ak moom mu wax ñu en tant que joueur mais aussi en tant qu'homme ci at bii mu génn 2015 2016 rek lan la si jàng ñu seetaan élément bi dellu si waat. mu ngi wuyoo ci turu Papi Mission Djilo ji am ñaar fukki at ak juróom-ñaar taayam toll ci 1 mètre 93 82 kilos lay pesé du jouer poste défenseur diggante 2015 ak 2016 li xew ci carrière doomu ndàngaan bi barina na waaye li ci gën a fës bokk na ci jafe-jafe ya am ak Nantes di club ba mu daan jouer li ko sabab di waa selta Vigo ya ko bëggoon jënd ci période mercato bi nant lank ni du ci dal ni ak njëg gu mu mënti doon du jaay joueuram bi. xëccoo bu metti dox si diggal mag équipe bi ñu dem ba écarté ko si groupe bi ñu yaakaar ni fa lay desandi ba ci jeexitalu saison bi ñu xëy rek réseaux sociaux yi xibaar ni Papy Djolo Badji wutali na Chelsea keroog yemook 31 août 2015 di dernier jour mercato estival bi demuk doomu nangaan ji doonoon lu bett ñëpp mu signé ji Chelsea ñeenti at ak ñetti million ci ay euro yu mu war a jox nant comme nampaay li léegi ci transfert bi rek mooy li nga xam ni nekkul Mourinho moo porté choix am ci Djolo Badji waaye kenn ci ay jegeñaaleem di wuyoo ci Guy Hylien di ab recruteur buy liggéey ak waa Chelsea moom entraîneuru Chelsea bi sax bu ko taskatu xibaar yi laajaan lu ko dugal ci jolobo ji daanu laq-laqal ay tontoom danaan carrément tànnuma ko dañ ma ko tànnal mu mel ni réalité terrain bi dafa mujj fekk ci ay waxam du benn match boo xam ni bokk na ci lu dul benn boo xam ni bu coupe la amul ci terrain bi lu dul ay simili juróom benn weer rek lañ ci teg ñu abale ko Werder de Brême di ab club allemand bu doon rayante pour am maintien gannaaw ba mu fa accès jolobo ji doon fa titulaire naka la commencé toj rek mu di jaloore bu rëy bu doomu ndàngaan bi def waral ñu sampub laaj ngir bëgg xam ndax day des Allemagne wala day dellu Londres pour dem prouver ji fële ca Chelsea laata muy tontu ci laaj bi ñuy wax jëlobo ji dalal ak jàmm ci quartier général. Je je ne dirais pas mystère ak boule de gomme parce que mu ngi fi. mu ngi fi ndeyu mbili gaa ngi fi. te yaakaar naa réaction yi ci plateau bi rek wane na ni que actualité bi riche na mais man dama koy commencer laaj rek Djilo entre et 2016 ko waxee ci élément bi am nga fi bras de fer ak waa Nantes pour juge fa. ñu ne déeta waaye nga am benn exposition extraordinaire ñu ne Djilo Mbodji jóge na Nantes signé na Chelsea. ñu gis ni que ba nga demee Chelsea tamit malheureusement joué nga jóge ca dem fële ca Werder de Brême sauvé club bi ci relégation 2015 2016 yow émotion yooyu yëpp nan nga ko dundee. waaw dund naa ko dund bu bu neex parce que lu la yàlla teg rek da nga koy nangu quoi donc euh, nanta avant ma koy jóge amoon nañ ay problème moom ak président bi affaire yooyu jógewul si man quoi parce que. genre dafa waxoon daf may damay dem après fin de saison bi donc fin de saison bi jeex na ma ñëw vacances ba ñibbiwaat après ñu dem stage avant may dem stage am na ay offre affaire yooyu noonu mais bon mais après bëggul woon ma dem parce que nee na xaalis bi doyul affaire yooyu noonu léegi man ma ne ko ba nga ma naree ba nga ma bëggee jaay xaalis bu bëri daaw la woon du ren quoi parce que ma saison boo xam ni que nii war nañ ma mën a jaayee xaalis bu bëri. après loolu lañ loolu lañ juboowul après man ak sama agent yi dem nañ Paris dem seeti ko toog waxtaan ak moom xam nga wax nañu fi wax yoo xam ne ñu toog ci télé di ko wax wala di ko wax ci journaux yi quoi après neexuñu woon nag nekkul benn affaire boo xam ne neex nañu mais après voilà peut-être yàlla lu ñu doon xaaral moo gënoon ëpp comme à la fin trouvé nañ solution après man maa doon daw si gannaawam pour dem après moom moo doon daw sama ginnaaw pour ñu dem léegi après Chelsea ñëw xam ñu dem def visite musicale foofu dama lay dagg tuuti bi nga yëgee nii Chelsea daf la bëgg. Mhm. parce que dañu ne le 31 août c' était le dernier jour du mercato ñu ne Chelsea. Mhm. Euh, am na ñu sax gëmul woon ni que Djilo ji en route pour Londres parce que dafa war a euh, signer Chelsea c' était extra c' était quelque chose boo xam ne kenn xalaatu ko woon. Mhm. bi nga yëgee loolu yow lan nga lan nga lan nga wax. après voilà man am naa confiance sama bopp quoi aw ma dara lu may ragal ci football bi donc euh, wax nañ loolu. après sama agent yi wax nañ ma ko trois jours avant donc c'était pas loo xam ne du dul dëgg quoi. Mm-hmm. léegi après xam nga du tamit da ngay dem ba Londres pour signer fa contrat donc gars dañu envoyé seen seen seen docteur bi ak euh, ak benn gaayen buy diriger ci club bi ñu ñëw Paris. ba ñëwee Paris après fekk ñun ñu ngi woon Paris ñu dem ci benn clinique fa laa defee sama visite médicale affaire yooyu mais signé wu ma juste après visite médical bi. dama def visite médical ba pare. après le lendemain laa signé donc euh, trois jours yooyu yëpp dama coupé woon sama téléphone sama waa kër mënuñ ma woon jot. Ah. jusque bu ma soxla woon information laay woo sama papa kenn suñu waa ñu wax ma ko après ma coupé waat sama téléphone. parce que moment yooyu waroo taal sa téléphone parce que boo ko taalee yeneen agent yi dañuy dégg alors que xamuñ nu mu demee mm. après ñu di la woo naan am nañ lii am nañ lii comme que milieu bi dafa. dafa doon benn milieu boo xam ne mooy loolu. dafa doy waar dafa doy waar trop mhm. trop. donc foog nga foog nga def attention. xool bu baax li ngay def. et puis et puis voilà après par la suite ma def sama visite médical le lendemain ma signé ba ma signé après ma woo sama papa woo tonton Ablaye Badiane. woo suñu waa kër yi ñoom ñëpp wax leen ne que bon maintenant c'est fait donc. Euh, signé nga Chelsea. signé naa Chelsea et puis voilà ñu dem xool euh, nan lay joxe. nan lay joxe alors Chelsea c'est vrai sénégalais kontaan nañu parce que Pape Cheikh mm. joueurs yi toujours dama koy wax dañu war di gën di góorgóorlu parce que bu ñu amee lu neex ñëpp ci ciy kontaan ah. euh, bi Papi signé Chelsea ñëpp a kontaan. oui engouement la nekkoon ñëpp ñëpp kontaan. léegi nag mu dem léegi nag foofu. beneen coow amaat beneen jafe-jafe pas coow mais beneen euh, comment dire beneen défi parce que dafa nekkoon nag équipe bi nga xam ne mooy équipe championne en titre de l'Angleterre nekk ak benn entraîneur bu mag bu ñu woowee José Mourinho mais José Mourinho ci reportage bi ñu ngi koy wax moom nee na jëliwul Pape Djilo Bodji benn recruteur am ah, moo ko ko jëlil foofu nag foog naa la peut-être difficulté yi am parce que ñëw nga fa mais mayu la temps de jeu waaw dëgg la moom man de j'ai l'impression la bañ sax naan kii ni mu ko bañee ni mu bañee booji mii après xamuñ saa yoo koy wax sport voilà une damay ciipatu rek de après xamuñ vérité bi <laughs> vérité bi lan la exactement quoi parce que man maa ngi doon rey sama bopp tout le temps à l'entraînement donc je faisais pour ma jouer donc euh, dama doon rey sama bopp ci terrain bi après ma pare dem musculation moo demee sama gaale récupérer affaire yooyu yëpp après nag peut-être yàlla moo ko woon après moom wax na que ni mm, du ma choix après waxaat na tamit ni que euh, ñu ko conseillé Zuma ñoom ñoo ma ko conseillé. Mhm. donc euh, lu tax muy jouéloo Zuma man jouéloo ma donc on sait pas xamuñ vérité bi la. mais est ce que doon ngeen waxtaan par exemple nga ñëw entraînement mu ñëw wax ak yow comme entraîneur ni muy def ak joueur. waxtaan ak yow ne la bon. Euh, Djilo sois patient ou voilà maa lay xaar ci lii maa lay xaar ci laa est-ce que ñu ngi mi ngi doon waxtaan ak yow. si si ñu ngi doon waxtaan après am na benn moment sax benn adjoint moo ñëw ne ma bon papi va voir le coach tu dis envie de jouer tout ça après ma ne ko non man mosuma def loolu ba ma commencé football ba léegi. Mhm. donc niñ ma yaree noonu laay continuer toute ma vie tu ma ne ko du dem di fëgg pour ne ko non dama bëgg nga dugal ma. jusque lu may jusque lu may wane si terrain bi doy na quoi bu fekkee baaxul woon tamit. dëgg la mooy loolu tu vois mais maa ngi doon rayante tout le temps pour jouer en ce moment équipe bi doxul woon donc dañu doon gagné surtout défense bi doxul woon tu vois défensive mais après doxul woon équipe bi doxul parce que moi des l'impression ni waa këram ñun ni ñuy mere des xale bi Torres waaye Fernando xaw ah. waa këram itam noonu la ñuy dafa mel daal yéen ñaar daf leen neen neen daal <laughs> Torres xaw ma Fernando xale boobu eh, waaw mën l'impression que dafa nen ñoom Bojé ak Torres ah mën na nekk c'est l'impression que j'ai en tant que supporter en tant que euh, ku bëgg réewam bay gis koo xamante ni réewam la jóge nekk fa nekk kàngam ci dëkk yooyu. Mm-hmm. je te jure dëgg la moom après xam nga doo xam juste euh, lu lu tax quoi xam nga duñ la ko wax parce que ñoom. nekk nañ star ba pare tu vois. d'accord ñooy coach donc club bi yëpp ñoom ñoo fay dogal. et pourtant da xaw a niroo yow ak euh, Mourinho. lu ñu lu ñu wax si <laughs> lu ñu wax si si euh, club bi loolu mooy am. tu vois lu ñu wax si club bi loolooy am et euh, voilà. mais à un moment donné tu t'es rendu compte que. Mourinho il comptait plus sur toi. Mm. xamoon nga ni que kii du la bàyyi nga nga nga jouer parce que équipe bi comme ni ñu ko xamee nekkoon na ci ay difficultés euh, que ce soit Cahill que ce soit John Terry à un même amoon nañu ñoom ay clash moom ak José Mourinho dans le vestiaire. Mm. mais dugalu la yow à quel moment tu t'es résigné nga ni fii moom xaar ma jéem a wut feneen parce que fii du baax. après comme nu ma la expliquer sànq rek. au départ saison bi mën nañu wax ne joueur bi bokkul ci plan coach bi. Mm-hmm. donc du jouer wala affaire yooyu noonu. léegi joueur bi moom mooy jël décision boobu xool lu ko ci arrange mu def ko. mun na wax ni que ni bon comme que coach bi continuer compté wul si man damay toog ma continuer sama entraînement. Mm-hmm. comprendre nga ma toog continuer samay entraînement on sait jamais football bi dafa dafa dangereux ba nga xam ni que genre mun nga dugg même pas 30 secondes nga gaañu da ngay mm-hmm. génnaat. Mm-hmm. donc changement mun na am à tout moment tu vois donc yow bu fekkee yaa ngi entraîné di xalaat ne un jour. war nga mën a jouer fii quoi donc au départ dañ la bañoon mais bu ñu demee ba amatuñ choix yaa fa nekk donc dañ lay àndi mm. léegi bu ñu la àndee nga wane sa bopp nga wane sa bopp mm. du moom coach bi rek nga koy wan da nga koy wan coach bi wan ko joueur yi wan ko supporter wan ko ñëpp xam ne. ñii nga fi doon teg mënuñu ma ci wax. Mm. et puis voilà loolu rek mooy tontu bi du leneen. question da ngay dem si journaux yi ngay wax ni que bon nii la demee wala nii non non demeewul noonu. mais est-ce que baal ma Mame Fatou euh, wulee seen salaire day wàññeeku. non non. ah boo joué wul sa salaire da koy am comme comme niñ ko bindee si. d'accord mais somme yooyu ñuy wax. est-ce boobu ngeen di jot directement xobbet xobbet ci seeni poches y a des partages y a des taxes y a quelqu'un qui jël bi agent bi jël bi kii jël bi man comprendre ma man na aide sab mi chaque jour ñu wax ci yenn sa yi ma ne ko am aboo jëkkër wutal ci subar yi dañ leen di fay bëri na transfert yi ay milliards euh, surtout pound bi léegi nga xam ne dafa xaw a foore je xaw ma boobu nu mu tudd. on veut savoir on veut des détails. Mm. merci de l'avoir amené sur le plateau. Euh, Mam mais Julo boo ji li ma naan oustaz wax ma Julo wax ñu on peut comprendre quoi. comme lu may d'euros donc comment may million mu yoo ko waxutuma laa gi ngeen di gagner comment ça se passe quoi dis-nous ah. dis-nous tout. bon comme gars avant xëdd euh, waaw dinaa ko ah. <laughs> léegi nu mu demee mooy contrat bi bu ñu koy dis bu ñu koy discuter affaire yooyu. donc agent yi dañuy toog agent yi am nañ seen pourcentage. am nañ seen pourcentage pourcentage soit dix pour cent wala affaire yooyu noonu tu vois. may ma ma def calcul bi <laughs> s'il je pense que ça va être compliqué dina métti tuuti de. d'accord après voilà ñoom am nañ seen dix pour cent. Mhm. dix pour cent voilà après xaalis bi ñoom. nañ ci gagné mais ñun suñu salaire ñun ñoo ko moom. Mhm. ak nu mu mënti ñun ñoo ko moom. transfert Mame Fatou ñaata la ñaata la woon ci ay millions voilà quoi moom 3 euh, d'euros. mais foog na ba tey bokkul ak euh, bokk na si si si transfert boobu je pense pas que agent bi dina si dina si. et encore. après y a tout y a tout dafa bëri calcul en fait. Ah, dafa bëri calcul non sérieusement dafa bëri calcul. non on a le temps maa ngi bànq ba. ah mën nga si boole taxi yeeg affaire yooyu noonu. Hmm? ay waay waay waay yéen ma bàyyi leen ma ngi yàlla def ngeen seen rubrique man tam dama bëgg rubrique. Alphie la war a bàyyi. Pape Cheikh rubrique kan. Pape sa rubrique mooy Alphie bàyyi ko. bàyyi ko rek mu calcul. donc c'était bàyyi ko bàyyi ko bàyyi ko mu calculer 3 millions. 3 millions d'euros. waaw d'accord 3 millions d'euros. donc moyen yëpp. ñaata nga lan mooy sa salaire yow ci ñaata nga. <laughs> man est-ce que aw ma ay cent

ñuy am si xaalis boobu si parce que bu ñu la jëndee comme man nant lañ ma jëndee nant dina am si xaalis bi mm. club bu ma doon joué Paris CFA dina am si xaalis bi ah. ñu ma doon joué Sénégal aussi dinañ am xam am si xaalis bi mm. donc noonu lay demee partage bu demee noonu la mais club bi nga jógee ñoo ñooy gën a ëppale ko parce que foofu nga gën a yàgg ak affaire noonu ban quartier nga màggee man Kaolack laa màggee. d'accord Bongore laa màggee. Bongore alors qu'est-ce que ça fait yow waa Bongore ngeen foowandoo ci diggante kaas Kasnaag ak Bongore boor yooyu yëpp footballandoo def tànku neen sàcc mango am góom waga ñun ñëpp jaar nañ ci xasaw xam nga ne ci mbedd bi <laughs> et d'un coup nga màgg tu te retrouves à Chelsea. Mm-hmm. Euh, naka ngay naka ngay dundee loolu boo delloo par exemple yàq yàq yàq ñi nga màggandoo loon biir Kasnaag. waaw déjà maa ngi nuyu waa maa ngi bi yëpp. que muy Bongre Bustaan affaire yooyu mënuma mënuma lim yëpp mais maa ngi lim waa waa Kaolack yëpp maa leen nuyu waa Sénégal aussi maa ngi leen nuyu waa dakaar waa Rufisque xam nga ñëpp aussi maa leen nuyu quoi donc euh, dëgg du woon loo xam ne dafa yomb après man ba ma nekkee booy dama amoon fu ma teg sama bët yi waa sama papa dama doon toog xaw ma xamatuma ñaata at la amoon mm-hmm. après mu ne ma boo màggee loo bëgg a nekk ma ne ko man footballeur laa bëgg a nekk quoi. Ah. mais c'était yàgg na li may wax ah boobu booy dëggantaan laa. Mm-hmm. donc sa boy ah, sa morom yi ñi nga doon àndal nga doon ànd ngay àndal ba léegi. waaw ñoom laay àndal ba léegi tout on est en contact euh, dañuy waxtaan tout yooyu ñun ñëpp ñu ngi ànd quoi ba léegi. amul benn yàqu-yàqu bu si am lépp a ngi nice ba léegi donc euh, j' espère que ça va continuer comme ça pour toute la mm. vie. mais mais Pape fi mu waxee foofu wax na dëgg parce que c' important aussi. xale yi ñuy seetaan xam ni que. affaire bi yombul parce que yow balaa ngay yegg si Nantes tu as quand même galéré en France ah. Mm-hmm. def ngay essai yu bëri dans mm-hmm. différents clubs et ça n'a pas marché. Mm-hmm. et à un moment donné sax ce que yoon bi ma jël moo baax. waaw xam nga fii lu fi yomb rek baaxul. lu yomb rek baaxul na metti tuuti comme ça après nga xam njëriñ bi lan la quoi. Saalum laa commencé no ay non ay Kaolack FC foofu laa commencé. mais dama doon teg chaque année damay teg objectif tu genre ba ma footballé cadet nawetaan deux ans la def après ma joué senior. Mhm. un an ma joué un an après ma joué championnat Sénégal boobu amaguma sax quarante tu vois. Ah sama premier sama match maa ngi jégalu nag sama premier match bu may joué championnat Sénégal. amagu ma woon 40 est-ce que amoon ay 17 ans yooyu affaire yooyu noonu. ok mais après dañ ma fraudoon quoi donc. <laughs> yaa laal point bu sensible. ci football sénégalais voilà dañ ma dañ ak benn nuroo waale affaire mais joué naa ab 3 matchs après si laay soog am 40. après par la suite la ma continuer foofu laa bàyyi jàng sax foofu laa bàyyi jàng ma continuer. du coup sama pap saa yu mu yee ma ndax dangay ngay jàngi tey ma ne ko non pas tey jàngi ma damay dem entraînement. waaw mu dem liggéey baa ma ma dem entraîner. wala yenn saa yi mu yee ma xam damay bañ yàq booy seen jox leen ay xel xam <laughs> yooyu lu may war nar a wax baaxul quoi. Mm. léegi après voilà mooy continuer di entraîner ba ma nekkee Saloum première année bi ñu woo ma équipe nationale espoir. Mm-hmm. donc foofu la lépp commencé mu ñëw espoir ma nekk di entraîner comme samay morom. donc ñëpp maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di ziar ñoom ñëpp ma entraîné bu baax et puis après ma am ay essai dem ay France dem ay Moldavie foo xam ne dafa seddoon trop si waaw. est-ce que mën nañ ko situer si carte du monde Moldavie. dem Moldavie ak Turquie une heure de temps là je donc dama jógee Sénégal dem Maroc xaw ma après jógee Maroc dem Turquie. non demee Turquie. dem Moldavie après dem Moldavie. une heure de temps. Mhm. mais avion ba nga si duggee man rek si nekkoon noir. <laughs> donc loolu moo ma xawoon jaaxal tuuti. en plus dëkk boobu dafa seddoon trop. dafa seddoon trop mais bon après xam affaire góor la rek. ma dem di ko ñafe xam mhm. affaire yëpp nekkul woon nii tu vois doo woon gis nii mais bon après voilà après dama doon dem di ñibbi si nag sama mhm. grand ko ñu naan mais lan ngay def nii affaire yooyu. boo demee baaxul dawal affaire yooyu mais non man gëm naa sama bopp. ah ah bu ma si naree tekki rek dinaa si tekki. voilà et macha allah résultat baa après voilà damay ñibbi si waat continuer samay entraînement tu vois am na foo xam ne ba ma demee Molda bi dem naa entraînement yi dama ko doon toj affaire yooyu di góorgóorlu bu baax tu vois <laughs> après génnee ba dem ba téye maye bi. foog ne signé naa. Mhm. ma téye maye bi nii. <laughs> waaw nii ah nii sa bopp ak ko tuye xaw ma ne non man signé naa nii. ku <laughs> leer ma. amal dabi ma ko nii signé wu ma. photo wu bañ def ko si site oh. ah, xam nga lu ma la bëgg laaj. xam la bëgg ma ko. Euh, footballeurs yi d'habitude dañuy am ay tur yoo xamante ne franchement doo comprendre fuñ ko jëlee. Hmm. man Papi Mission nag wax dëgg yàlla bi mu juddoo sama day ba léegi musuma gi Sénégalais bu ko tudd. Hmm. fu tur bi jógee ak est-ce que noonu nga tudd dëggantaan papi Misson. ah waaw dafa El Hadj papi Misson. Misson la ah du Misson Misson waaye papi Misson moom fu mu jógee. sama maam lañ ma tuddee ah, la tudd. Misson la tudd El Hadj Misson. ah d'accord ah yow nga tuddee sa bopp papi Misson. waa ñoom ñoo ma ko tuddee papi bi maam la ma tuddee donc noonu la demee <laughs> après Djilo Bodji aussi donc voilà am nañ ay origine am nañ ay origine soit Mali wala Burkina Faso donc hmm, euh, très bien d'accord donc voilà quoi alors mais fii voilà voilà non personne <laughs> parce qu'en plus ay donc ko bëgg a woy mais il faut nga xam maam yi fu waa la <laughs> waa la wala waa Saloum Djilo moom boo bakkee Djilo Bodji alaaji Ibrahima sa baaji loo booji bi doo ko mën a prononcer. non oh, gannaaw bàyyi ma bàyyi la ko mais man juste dafa benn question bu ma koy posé. yow tam euh, géer la bëgg pour prochain cassette. non du tout. yow tamit album fi mu ne dañu wër géer man namu ma géer nag. je les connais. man namu ma géer. xam naa lépp bàyyi naa ko ma ma jóg. mais Pape Cheikh gannaaw booji maay géeram de. non bàyyi naa ko ma jóg ma jóg nee moom ba mu ñëwee dugg si rek la ne mooy géeram bon man benn question laay posé ci la booji ah. euh, des fois dama lay gis ci euh, euh, ci ay snap ngay foowee di jouer instrument de musique. ay xarit ngeen snap. non am na am naa ay xarit am naa. xaritam ah kuy squat ci téléphone jàmbur yi pour xool juróom non non dama am xarit yow <laughs> am xaritam boo xamante ni sama xarit la. ci dama ko gis si na yow ma xool ma xool Jullo ah, a d'accord su ma waaw je comprends <laughs> ma xool lu mu dugal tey. Pape xam nga tamit man xam nga sa yéegé nekk bàyyi ma waaye. ma xool lu mu dugal tey. léegi question bu laa lay posé est-ce que réellement da nga mën a da nga am da nga mën a jouer instrument de musique parce que mës naay wax ak sama xarit boobu au téléphone. <laughs> mu paase instrument. te nga arrêté. waaw waaw waaw waxal <laughs> daagaleel. waaw daagaleel daagaleel. man Pache bu ma wax ni ñu xamee bu ma wax. loolu problème bi ah. Aïda Aïda waxal dafa bëgg a jaxase ak sénégalais yi. ba pare dama déglu dama ne Pape dafa bëgg génn sama jikko dëgg dëgg laay bañ du ma ko nangu. donc dama lay poser question juste que euh, barki dem rek gis naa la ci euh, benn snap. mais mais mais mais snap. waaye ñëw ñëw ñëw ñëw. waxal waaye bu leen toog waxal bu leen toog. xamuma bëgg a wax Aïda Pape Sakho mu mën a àggaleel. non dama ko gis à deux reprises gis naa ko muy fooy instrument de musique clavier barki dem balafon laa ko gis muy fowee ma di ko laaj est-ce que réellement dafay jouer instrument de musique yow gis nga Pape Cheikh Diallo. non. non musique xam nga dafa bokk si loo xam ne genre ñun footballeur yi dans dañ koy soxla lu bëri quoi tu vois parce que yenn saa yi da ngay am entraînement wala nga am nga stressé affaire yooyu wala ay t'es pas bien dans toi tu vois mm. genre t'es obligé de nga déglu musique tu vois mm-hmm. même boo bëggee fàttaliku Sénégal fàttaliku sa famille sa xarit yi affaire yooyu parce que yenn parfois genre di nga ñëw Sénégal vacances genre nga nekk si oto wala nga toog ak sa gars yi genre ñu teg benn musique donc boo ñibbee boo ko dégluwaatee rek xam nga tu repenses a eux tu vois donc voilà voilà exactement non man bëgg naa seetaan woy mais pas man ma woy tu vois bëgg naa seetaan woy bëgg naa jouer instrumental comme guitare bëgg naa jouer mais mënu ma ko. de ce fait que yëpp de ce fait que jënd. ban xam naa woyam yëpp. xam naa woyam yëpp. par exemple. ah nu mu tuddati sax. lu la neex neex na ma waaw voilà exactement. ay nga ko ko way pour mu fàttali pour mu fàttali ko parole vas-y chéri. non sama gars la moom sama gars la non non je pense que mën na ko way. oui vas-y comme ça nga fàttali ko ci lu bëgg bëgg naa ko chéri bañ naa ko bësa soo ma tere ma bàyyi ko man yow rekk laa miin soo ma bàyyee man dinaa wet wet loo ma wax loolu laay def meli baay faal ak ndigal yow lu bëgg man ci daay doo bañ nga ko bañ nga ko ba compte snap am da ko yéer bañ naa ba numéro bi ma amoon dama ko change gi nga bekk bañ naa ba sama compte Facebook dama ko tëj ngir nga bekk baby jox naa looy jox naa jox naa la elle a beaucoup de talent Mame Fatou on poursuit ak les éléments qui restent et puis cadeau bi may jox Aïda Samb bu ñuy jeexal julo di nga sa téléphone moom mu indi téléphone am snap code leen yéen ce sera plus facile pour elle non non ce sera plus facile pour elle muy woo copine am di yër sa snap d'accord alors eh, génneel ma eh, sa téléphone ñu def ko snap code. Pape Cheikh te plaît man. Djila Bodji dafa dañu am ami comment comprendre nga ñaari ami commun. non sama non non si parce que parce que dama bëgg a jaxase ak sénégalais dama ko nangu. non garaawul loolu dara nekk ci dara nekk ci. comprendre dara doom waaw ñu wax football. non non dañuy àggali suñu jëf ba pare tàmm nga sa lii ils sont sérieux ils sont pas sérieux fii nii la man dañuy àggali suñu jëf sax léegi. alors juste après juste après juste après entretien bi euh, ñu def snap code bi comme ça dootoo yëre ci feneen euh, Djilo Bodji on poursuit avec les éléments. exactement parce que wax nañ ci ba pare donc Djilo nañu wax ci football. quand même wax ci loo xam ne mooy équipe nationale du Sénégal parce que je pense que internautes yi. Mhm. Euh, c'est la même question. Mhm. Euh, man d'abord damay def benn juste petite incursion j'ai l'impression que CAN 2015 bi. le fait que defoo performance bu baax moo la topp ba saison bi yëpp jeex le fait que nga dem xam nga bokkoon ci équipe bi ñëw def premier match contre Ghana ñu génne la au bout de la première mi-temps j'ai l'impression que psychologiquement ça t'a un peu marqué sur l'année dama bëgg nga ñëw foofu ba pare ñu soog a ñëw ci euh, actualité équipe nationale bi. waaw dëgg la moom euh, kan bi bañ fa demee pas que personnellement mais genre équipe bi yëpp mm-hmm. on n'était pas on n'était pas là nekkul woon nekkul woon ñun genre lu luñ doon football ci qualification yeeg affaire yooyu mais bon après loolu ça arrive ah. genre tout le temps ngay nekk à 100 pour cent mais genre nekkul loolu moo ma yàqal ba que sama saison baaxul affaire parce que mentalement je suis bëgguma wax ndax mais je impacté wul impacté wul parce que tu disais tout à l'heure que tu as dit à ton président. Euh, au mm. niveau de Nantes que. Mm. ba nga ma waree jaay lu cher c'était l'année dernière pas cette année parce que j'ai pas fait une saison à la hauteur. voilà exactement. Euh, donc tu lucide pour comprendre mm. cela donc est-ce que moo tax ma lay laaj ndax impacté wul ci sa ci sa fin de saison. de janvier à à septembre. non non mënul mënul mënul impacté parce que parce que xam nga rek nit ki moom tout le temps mënul nekk di neex. mënul nekk di neex après koy nangu comme ça nga gérer ko quoi genre bu fekkee defoo performance bu baax yow sa bopp xam nga ni defoo performance bu baax tu vois après loolu boo ko amee rek c'est genre dina la dimbali ci sa carrière lu bëri genre mënoo nekk tout le temps à pour cent c'est pas possible genre duñu ay machine quoi mais boo deful lu baax nangul ni defoo lu baax d'accord très nga gën a dem liggéey pour la prochaine fois nga def lu baax tout à fait mm. alors justement ce qui nous amène à, parler de l'équipe nationale Zeyna vas waaw euh, y a juste les internautes qui veulent savoir lan mooy problème am ak Aliou Cissé. balaa loolu ñu an justement élément bi nga xam ne Aliou Cissé conférence de presse laaj nañ ko question bi euh, mu répondre ci pourquoi pas Djilo Bodji euh, ou plus pourquoi plus Djilo Bodji que les autres ñu déglu élément bi. vous parlez des jours comme Papi Je connais le garçon. Voilà. Donc pour euh, moi aujourd'hui, je pense qu'il ne mérite pas plus que, que Fallou Diagne, qui a fait aussi, vous oubliez de le dire, une grande saison avec Rennes aussi, qui a été compétitif, qui a été bon. Et un garçon que je ne connais pas, un garçon que j'ai envie de découvrir. Voilà, c'est l'occasion pour moi de, de l'appeler. Donc euh, je l'ai appelé. Maintenant, comme j'ai dit, nous sommes encore loin, il y a encore beaucoup de matchs qui nous attendent. et, et, et Donc, euh, c'est des choix que Voilà, Mam donc loolu mooy réponse su Aliou Cissé. c'est un choix sportif. Hmm. bon yow lan ngay tontu. ba après un choix sportif ñëpp koy nangu ah. hmm. genre c'est pas parce que ni woowuñ la nationale rek mooy lool et puis lu tax woowuñ la Djilo parce que yow bokkoon nga ci ñi nga xam ne ñoo nekkoon un peu ossature équipe nationale bi. def nga éliminatoire CAN 2015 tu fais euh, la CAN 2015 même si bon l'équipe n'a pas été au rendez-vous ñu ñëwaat regroupement Aliou Cissé jël équipe bi woola mais au bout de ces deux regroupements là Sénégal jouait contre Ghana ak le Havre au bout de ces deux regroupements là la ñu gis ni que y avait une rupture. lu mm. tax depuis lors Aliou Cissé. génne la ci groupe bi. après lu tax mu génne ma si groupe bi man xaw ma ko après moom mooy jël ay choix am et puis dañ koy nangu rek. toog seetaan man lu ma lu ma lu ma lu ma concerné mooy ma nekk samay entraînement tu vois di reyante sama sama fi ma nekk ma nekk samay match di reyante fi ma nekk. et puis buñ ma wooyee. waaw je viens parce que ñëpp joueurs yi nekk même ba Chine. même ba Amérique ba fu gën a sori si monde bi xam nga ñoom dañuy bëgg a ñëw équipe nationale. Mhm. donc xam nga et que mënuñu woo ñëpp mënuñu woo joueur yëpp quoi mënuñu woo joueur yëpp dëgg la comme li mu wax genre pas pourquoi que moi quoi genre am na yeneen joueur ah. après voilà. on accepte et puis hmm. on mais man je vais je vais aller plus loin dans ma dans question et dans ma réflexion Djilo dafa am lu ñëpp dégg Sénégal gi yëpp di ko wax. Hmm. Ah, je pense que dégg nga ko ñu ne Djilo dafa regroupement bi ñu am le Havre dafa dem toquer au bureau de Aliou Cissé. fëgg voilà toquer waaw fëgg ne ko Aliou Cissé man du ma joueur wu banc. soo may woo da nga may woo pour ma nekk titulaire soo ko dul def kon c'est pas la nga may woo. Mody ñoo ngi fi. loolu est-ce que dëgg la wala du dëgg jilo non après xam nga am na ay am na ay circonstances yu ci nekk yu bari yoo xam ne genre mënuñ ko wax ci ci ci télé. Ah. wala mënuñ ko wax ci journaux yi affaire yooyu. Mm-hmm. parce que genre boo nekkee Europe genre gars yi dañ naan tout ce qui se passe dans le vestiaire ça reste dans les vestiaires tu mm-hmm. vois après. Ça, ça, mais ça, sauf que là, c'est pas resté dans les vestiaires, c'est sorti. La preuve. Après, qui c'est qui l'a sorti Non, mais parce qu'il y a Après, eu. Après, qui c'est ben, qui l'a sorti Dilo, Dilo, dafa amoon benn genre de change d'arme. moo xam nga lu tax ma wax la loolu. parce que parce même en Europe, tout ce que vous dites dans les vestiaires, nous nous sommes au courant voilà, aussi. Voilà, regroupement bi. yow daal cata lay topp xanaa doo sangatu. <laughs> Pape Cheikh may ci sa maam ñu la may ma foofu rek nga dafa ni tout ce qui reste dans tout ce qui se passe dans les vestiaires reste dans le vestiaire mm. mais je veux préciser qu'au lendemain du regroupement il y a eu un premier article qui est sorti boo xamante ni c'est un article qui est parti sorti dans notre quotidien l'Observateur oui qui était plutôt en faveur de ces de certains joueurs qui mm. disaient que oui euh, le coach il est difficile il est autoritaire etc etc mm. il y a eu un autre article qui est sorti dans un autre quotidien sportif où on disait que lu tax ñii ak ñi ñu écarté leen parce que lii ak lii dafa am. d'accord donc tey moom mi ngi fi mën na leeral mbir mi parce que info yi tamit ci joueurs yi lay jugee. en tout cas ci entourage bi. Mhm. vestiaire bi donc du coach bi rek moo fautif mais ah. joueurs yi aussi des dañuy wax. pour défendre seen seen seen seen seen der quoi. donc jiloo loolu il faut il faut nga leeralal ñu ko. après xam nga man joueur la rek si joueur rek laa si équipe mhm. dañ ma écarté c' est pas que man ma écarté sama bopp mais lu tax ñu écarté la xaaral ma expliqué ma ku ma écarté kooku la war a laaj. non moom laaj nee na la c' est un choix sportif mais nee na la aussi. Mhm. Djilo Bodji xam na li mu war a def pour ñëwaat ci équipe nationale. ah bon lan laa war a def genre man sama sama sama club maa ngi bu baax. est ce que du jéggalu. maa ngi ah, maa ngi bu baax après. lu tax ñuy woo joueur muy ñëw équipe nationale c'est parce que mi ngi si club mi ngi góorgóorlu bu baax mi ngi reyante donc juste ça loolu rek mën nañ ci woo. joueur mais yaakaaroon ni def nga erreur fenn. fan si noonu. mooy par rapport ak euh, situation bi ma la wax te ba tey leeraloo goo ko parce que da ma ne y de des circonstances ba pare wax nga ma dañ ma écarté dafa dem di tambale ko voilà léegi ko Aliou xam nga lan man du ma joueur ban yooyu yëpp am na <laughs> ñun ak suñu fugg ak yooyu yëpp yenn saa ma dem fëgg bureau booba ne ko e xam nga lan laa lay yëgal lii ak laa ak lale quoi ça arrive après moom bu dee kilifa la il va se sentir euh, vexé wala yooyu dafay bëgg itam xale bi mu jiite parce que bu dul dara moo la mak ah day xaar peut-être nga ñëw ne ko grand maa ngi jéggalu euh, je sais pas Euh, mun naa ko xalaatee loolu peut être parce que problème parce que commencé woon na imposer aussi équipe nationale. je pense que coach Aliou Cissé ba ñu am yaakaar ci nekkul ko peut être du du ko écarter comme ça. parce que mun na quand même soxla ay cadres yu mu appuyé wu. peut et du jour au lendemain mu demee nii. je sais pas ñëpp di laajte. après voilà moom moo wax Aliou léegi ndeysaan moom moom. ma <laughs> laa bëgg sax. Pape Cheikh. moom moo wax moom moo wax. Euh, xam naa lu ma war a def mmh. donc na na ko wax na non man dëgëru nekk non man man dëgëru man dëgëru ma. d'accord jusque ni man sama sama sama dëkk laa am quoi Sénégal laa am. moo bu ma la ko paasoon léegi di nga ko jël. ak non amul problème dañuy teg dañuy waxtaan. mais mais mais Djilo man foofu la ñuy parce que xam nga dañu wax dara man dama bëggoon moom aussi mu wax ñu qu'est-ce qui s'est passé. qu'est-ce qui... Non, non, je vais insister parce que c'est mon rôle de journaliste d'insister. Pourquoi, du jour au lendemain, on écarté sachant qu'il y a eu des histoires qui ont eu lieu wax nañu est-ce que def nga loolu wala defoo est-ce que def naa lan si noonu maanaam est-ce que da nga dem toke ne ko man du ma joueur banc bu man duma ma joueur boo may woo c'est pas la peine di ma teg si banc bi c'est pas la peine nga may woowaat non xam nga am am na na <laughs> non xam nga mënoo wax waaw wala nga wax déedéet foog nga foog nga expliquer ko tu parce que boo waxee waaw rek day gàtt de toute façon on va finir cette émission Mame Fatou dinañ ko def mission certainement mm. euh, ci as de cœur. may ko tuuti rek mu expliquer <laughs> may ko deux non voilà comme euh, équipe nationale daal man xam naa ne. sama sama équipe bu dëkk la damay reyante. pour pour pour suma dëkk quoi tu vois. après peut-être il faut que waxtaan am wala quoi que ce soit. après on fera tout ce qu'il faut pour. Euh, Inch'Allah pour régler tout ça. voilà es-tu prêt à demander pardon. on finit et aussi. Euh, mais mais mais tooñu ma pour wax pardon. xam nga boo tooñee dina nga wax pardon. loolu dinañ ci ñëwaat mais li ma bëgg a xam mooy euh, yéen en tant que jeune dañuy dégg ñun euh, ay million ay milliards. Hmm. waaye euh, créneau sportif dafa nekk loo xam ne dafa gàtt. Hmm. est-ce que yéen a ngi xalaat investissement parce que ñun gisuñu. lu hmm. extraordinaire loo xamante ne joueur. am na ko ci millions yi ñuy dégg yëpp. te gisuñu loo xam ne vraiment. gën nañ ne voilà sport am na lu mu indil xale yi. est-ce que yéen a ngi xalaat que euh, euh, sport bi dafa gàtt que ëllëg blessure mën na am ñu ko hmm. wala bon yàllaa xam quoi est-ce que yéen a ngi xalaat quand même investir loo xam ne ëllëg même boo leen ci jógee dinañ ne hmm. diwkat yoroon na waaye def na hmm. lii non dëgg la li nga wax moom dëgg la moom man joueur yëpp genre lu ma leen di ñaanal mooy après carrière bi ku si nekk gis si boppam quoi comme ba mu ci nekkee mën ko gérer parce que après genre comme ni nga ko waxee dafa gàtt genre mën nga gaañu sa carrière jeex wala affaire yooyu donc am na ñoo xam ne tamit ñi ngi lijjanti seen côté mais publier wuñ ko wala ñu wax ko fu ne da ngay dóor li ngay dóor te ko côté après gérer sa gérer foo dëkkoon sax yow immeuble euh, kan non maa ngi dëkkoon ne Maamoun Maamoun laa dëkkoon saa ma ñëwee vacances Maamoun laay dëkk après damay dem sama gaal après noonu. Mm-hmm. mais Pape Cheikh li ma siy dolli rek mooy man xaw ma sax euh, football bu baax a baax. Mm-hmm. fas laa gën a xam mais que damay toog si nit yi ñuy wax ni lan moo tax. Mm-hmm. footballu Sénégal suñu jëlee ay xale ba nu suude wu. ba commencé am ay victoire yu baax. ñu changé lan moo tax loolu. lan moo tax bu xale yi suude rek yow écarté équipe bi tas yaakaar nañu. pourquoi après kenn xamula ah, xama coach bu ñëw rek day bëgg defar équipe wala affaire yooyu noonu tu vois après am ay joueur am am ay affaire am mais comme nuñ koy waxee rek genre dangay dem ci guerre buñ la gañee ça ne pas dire que ni da ngay yàq ñi fa nekkoon wala affaire yooyu reconduire leen nga waxtaan leen jox leen sax xalaat comme ça que ñoom xamante nañ seen biir ba pare. après lu si des du bari tu vois lu si des du bari. mais su fa xorom maam Fatou ñu bàyyi la ñu bàyyi la ñu bàyyi la ñu bàyyi la nga tëj waaw. Uh-huh. su fa xorom galaaj ji amul ci biir. je sais pas. Ah njaxas bi. <laughs> voilà très bien maam ah, Pape Cheikh ñu ñu tëj euh, boo xam ne peut-être nit ñi xamuñu ko ci euh, jilo boo ci mooy euh, ba jilo basket ak buuna parce que ki lay gérer ki nekk sa agent dafa nekk koo xam ne pratiquement. basketteur français yi gën a mag ci àdduna bi moom moo leen di gérer ku ci mel Nicolas Batum par exemple Vincent Collet di entraîneur équipe nationale de basket. Mm-hmm. yow tamit mu lay muy gérer sa carrière ah. yow ak Bouna nan ngeen xamante. buuna nu ñu xamante benn euh, benn grand bu dëkk nant bu ñuy wax Mohamed Gueye moo ma ko présenté. léegi après moment boobu fekkoon na ma bëgg changer agent parce que li ma doon dund ci club bi neexuma et que gisuma woon mu def ci benn euh, benn pas quoi pour jéem ko gérer léegi entre temps Mohamed présenté ma Bouna mo waxtaan ak moom après après suñu waxtaan ci laa gis ne kii kii il est un gars qui est ambitieux tout ça. Mm. donc mu wax ma fa wax yoo xam ne après ma gis ci sama bopp quoi tu après ma ne pourquoi pas avec lui genre je tente. bu mm. ma tenté après ñu xool e que j'ai tenté Et puis lui, c'est un fan de basket, c'est un, un, un, amateur de basket. Toi aussi, je pense que tu aimes bien le basket. Ouais, j'aime bien le basket. Demain, il troll le basket. Bien ça, ça demain, il jouer, tu vois. Voilà. mais ay mon loolu noonu. <laughs> voilà okay, okay. merci beaucoup en tout cas Djilo ñu ngi lay gërëm bu baax Mame Fatou Ndoye aussi merci pour cette occasion. Euh, bëggoon nañu wax ci programme mu suba ak UEFA 2016. bi coupe d'Europe bi oui on voilà. va faire l'impasse. juste voilà. dire que quand même il y a une grosse surprise. Mm. tey si. Euh, groupe D bi mooy Croatie moo dóor Espagne ñaari bal ci benn loolooy tax nag Espagne moo nekk deuxième au lieu que muy nekk euh, premier et puis du coup euh, huitième de finale yi euh, Espagne dina risquer affronter Italie et ça va être un gros choc je pense qu'ils auraient pu éviter quand même s'ils avaient au moins match nul malheureusement voilà voilà merci madame Traoré ñu ngi lay gërëm bu baax ci euh, sport bi nga ñuy indil on va finir cette émission ak Aïda Samb mi nga xamante moom moo ñëw woyal ñu tey euh, beaucoup de projets avec elle je voulais juste avant Aïda di ñu woyal euh, won leen lamp yi tudd Economax Zeyna tu nous donnes rapidement le numéro de téléphone pour ñi nga xamante ñoom ñoo ko bëgg a am seen kër ay lamp yu économique la lii moom il faut ngeen am ko voilà bu ngeen amee ay yeneen lamp yu wekki leen yëpp ngeen ngeen roof kii ah, mais mu ne ça c'est daf lay économiser la sa courant foo dem mun nga koo am ba pare dafa leer naññ waaw mun ngeen ko am nag ci quincaillerie yëpp sinon su fekkee ne euh, bëgg ngeen ko am man ngeen woote au 77 523 à 77 18 mm. wala 77 343 40 am na Gambie euh, tamit 00220 77 659 99 loolu mooy numéro ba ca Gambie voilà donc c'est des lampes Economax ngi gërëm bu baax euh, ñi ñu àndaloon tey ci quartier général bi tonton Mac Pape Samba Thiam Boubou Ndour pour la production euh, de cette émission Mame Sira Konaté merci ci li nga ñu indil tey muy Mimi Touré euh, premier ministre bu Sénégal gërëm tamit Dieynaba Seydou Ba euh, pour la coordination de cette émission équipe digitale bu Futur Média Cheikh Ndiaye la ñuy jox seen remerciement gërëm tamit administration bi yëpp mm-hmm. Pape Doudou on a besoin de toi dans cette émission pour ceux qui veulent nga ñëw fajar gi dama leen di tendance voilà donc on veut qu'il soit là guddi gi parce qu'il gère bien la régie maa ngi koy gërëm bu baax même si bu ba bëggul ñu wax mais ngaa mooy sama Bébou Eh, paraît-il que suñu jargon loolu la gën a bañ waaye xanaa nit ki nag loo ko jiite jiite jiite ko bàyyi ak jargon wam voilà loo nekk directeur directeur esclavage dafa xewi voilà fi mu ne nekkatuñu ci affaire apartheid donc je dis à mon t'embrasse mbokk yi fii la ñuy jeexalee émission bi ak Aïda Samb oui pour Snapcode bi waaw non seulement Snapcode bi mais je que am na ñu ma bëgg nuyu. oui et puis moi aussi pour une fois damay nuyu ñu yenn ji. notamment euh, suma coiffeuse Absa Lili coiffure dafa baax vraiment dafa li muy def daf ko mën te bëgg naa korité bi ñëpp dem fa di defar seen bopp donc 77 727 34 48 super maa ngi remercier aussi Sambali te mu nekk euh, Angola parce que tey bi ma sol tu vois non donc ak faamam mais yàgg na mais ñu jox ma teraanga bi ma aussi je leur fais plaisir. sol ko maa leen di remercier bu baax. voilà euh, Djilo ñu ngi lay gërëm bu baax. waaw maa leen di gërëm yéen ñëpp ñu fi nekk parce que émission bi neex na maa ngi. c'est ngi remercier ñëpp ñu fi nekk tamit am na ku ma woo sànq ne la pour mu tudd ko. donc maa ngi tudd Aïssatou Thiaw ak Nabou Sembène ak sama coach yi ñoom Pape Faye ñoom Jules. non samay samay mag lañ quoi samay mag lañ affaire ah. dama leen di ziar donc maa ngi nuyu Baye Tidiane. sama gars yi ñoom Mandiaye yu laan. est-ce que sama téléphone mi ngi sama oncle bi donc moom. pare ah, naa voilà jox leen ma portable am ana portable Aïda Samb. <laughs> ma ajouté leen léegi snap code allez maman ma puce donne-moi le téléphone de Aïda Samb ma ajouté leen yéen ñaar léegi ci ci pour finir Aïda Samb ton album qui est en train de se préparer euh, juste après Korité dinañu ko am voilà donc génneel ma sa Snapchat donnez-moi le téléphone de Aïda leen. tey laa leen di snap ñoom ñaar en direct en pleine émission pour finir laataa ñuy xëdd ay ca décodel ma ma snap leen yéen ñaar ma ajouté la après il faut me remercier ah. voilà donc ñu ngi gërëm ñëpp sant ñëpp Mado merci Maïmouna gay Bambalo ñu ngi gërëm Alfi merci Ndeye Ndak ay Paye Fall qui veux-tu remercier parce que Ndeye Ndak mooy dem woyal ñu. voilà euh, Aïda Samb <laughs> voilà voilà donc Aïda Samb dama bëgg mu wax ñu projet Allez, regardez en direct. Je peux souhaiter joyeux Je vous montre comment j'ajoute. Alors c'est ça. Voilà, snap bu Aïda Samb lay ajouté ci bu Djilo Regardez. ils sont désormais amis sur Snapchat. allez Aïda ñu ngi gërëm bu baax yow la ñu bàyyi nga dem tëji euh, sa album mu ngi préparé génn incha allah. waaw Pape Cheikh maa ngi préparé sama deuxième album. Mm. Euh, pour incha allah juste après Korité ñu ngi xool nag ak Ibou. Euh, comment on va faire pour génne benn single wala deux morceaux avant ci korité bi. incha allah incha allah après la korité ñu lancer album deuxième album Aïda Samb. incha allah merci kontaan a trop. merci la nga rejoindre. remercier bu baax ki nga xamante ni moom ma solo rob bi. sama benn fan fans la bu nekk euh, Mauritanie. Mm. Aïcha Saliou moo ko ñaw voilà pour ma sol ko. merci beaucoup merci merci à tous on vous retrouve euh, demain bu soobee yàlla 22h voilà joyeux anniversaire à qui à ah, Mamito Mamito voilà donc joyeux anniversaire Mamito waaw. allez euh, ñu bàyyi leen ak euh, Aïda Samb pour jeexal tey euh, quartier général on vous retrouve demain 22h en direct beneen autorité mooy ñëw ndogu si fii di ngeen ko découvrir déjà le matin ci page Facebook officielle bi Zeyna merci Modou ñu ngi lay gërëm bu baax mention spéciale à toute l'équipe de production Koulim Dioum continuez de rester avec nous parce que QG c'est l'émission seen xol yi lu muy rey rey seen xol yi lu muy yaatu yaatu boo ko ubbee doo fekk lu du laaw bu yi lu muy yaatu aram bonko soxna njaay nguy njaay faama mam abdou aziz si malik mooy suñu maam aram bonko soxna njaay nguy njaay faama nguy njaay faama buram xudatam seen xol yi lu muy rëy rëy seen xol yi lu muy yaatu yaatu soo ko ubbee doo ca fekk lu laaw góor doo ñoom te duñu yow say jëf na jamono doo ñoom na jamono doo